بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين mbokk yi nuy sant sunu boroom nu ngi koy bàkk di ko kañ di julli di salmal ci ab yonente muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nu ngi ñaan sunu boroom mu dëkkee dot ci waamem xéwal ci kaw yonentu boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain nu ngi ñaan sunu borom bi asmaihi alxusna wa sifatihi alula sunu borom boolañ ci jaam yi mi defal tawfiq ak istiqaama ba keroog ñuy dajeeg moom dellu siwaat nañ weneen yoon ci ron keppaaru xam-xam di fàttali sunu bopp di leen fàttali ni weer wu màgg wii ñu nekk muy shahru ramadan al mubarak wane na gannaaw fi mu ne di jëm dafa mel ni bu ñu seetloo ay bis yu néew moo ci des wala ay waxtu su boobaa nag jaar nañu gën a góorgóorluwaat gën a farluwaat gën a njaxlafaat ci jaamu yàlla yi nga xam ne ñu ngi koy def rawatina ci bis bu màgg bi ñu nekk mooy xayru yawmin talaat fihi shams ajjuma ji moom insha allah mooy nekk ajjuma ji mujj ci weeru koor beneen ajjuma dootul ñëwaat te xam ngeen ni ajjuma dafa bari ay ngëneel lool ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na bis bi gën ci bis yi jant bi penk mooy bisub ajjuma wax na ci ay mbir yu bari kon bisub ajjuma kat bis la bu barkeel jaadu na ki gëm yàlla mu góorgóorlu ci ay jaamu yàlla lu ki mel ni bari lu muy jéggalu suñu boroom ginnaaw julli juma lu ci mel ni bari ay sàbbaal yàlla jàng suratul kahfi ak bari lu mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xam ne rotee na ko ni ci sunna comme niñ ko baaxoo bu ñu fàttalikoo bindab tafsir bi ñuy def ci koor bi saa bu suñu borom dépaan mu dem ba toll ci jeex ci bu ñu seetloo ñaari at yi passé bu ñu demee ba bind bi nar a jeex ci mujjantalu koor gi danañ seet kenn ci alaamu salaf saalih ulaayika al axyaar ñu tarjamaante kenn gaa yu baax yooyu nga xam ni ñooy magi lislaam yi dëgg nag te it ñooy sëriñ si dëgg nag ñu tànn ca kenn waxtaanee dundam xam mooy kan jàpp naa ni loolu danañu jural jëriñ njëriñ lu bari waaye danañu jural ak coo soññe ci gën a farluwaat tey ñu ngi tànn imam ju mag donte siiwul ci ñi dul ay jàngkat waaye nag jàngkat yi moom ñépp xam nañu muy al imaamul kabir saidu taabiin said ibn al musayyib imam jooju de mbokk yi muy said ibn al musayyib donte siiwut ci nit ñi ñi dul ay jàngkat ñu xam ko waaye siiw na lool ci jàngkat yi ñu xam ko ndax montagne la ci montagne xam-xam yi moom said ibn al musayyib ab sang la woon ca taabi'un ya dund na ak ñu bari ci saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku ci mel ni Umar ibn al-Khattab Usman ibn Affan Ali ibn Abi Talib Aba Hurayra ak Aisha Ummi Salamata ridwanullahi ala al-jami' ñii ñëpp Saïd ibn al-Musayyib dund na ak ñoom gis na leen kon loolu li muy wane mooy jege na saxaaba ya lool Saïd ibn al-Musayyib kéemtaanu suñu borom la woon ci mën a mokkal looloo tax ma ne la montagne la ci montagne xam-xam kéemaan suñu borom la woon ci ñor ak yeewu dëddu àddina ak fegu muñ ak wax dëgg moom yàlla daf ko ci defoon ci ay may loo xam ne jéggi na dayo moo tax abdullah ibni omar da koo xool ba mu yàgg mu ne ko yow day law raa hada rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la sarrahu mu ne ko yow de bu la yonent bi gisoon dina kontaan loolu wóor na ma te xam ngeen ni saxaaba yi duñu waxant ah loolu la abdullah ibni masud waxoon rubay ibni xusayn ah law ra wallahi law raaka rasulullahi la ahabbak mu ne giñ naa ne yow bu la yonent bi gisoon dana la bëgg kii moom abdullah ibnu amar ni ko xam naa ni bu la yonent bi gisoon dana kontaan te xam ngeen ni kuy kontaan loo yonent bi sallallahu alayhi wasallam kooku jaam ko ci yàlla dëgg lay doon abu nuaym al asbahani ci bi muy wax dund waa ji di said ibn al musayib ci tarjamaam dafa wax ni abu muhammad muy said ibn al musayib ibn hazn hazn al maxzumi mu ne bokkoon na ci min al mumtahanin mooy borom xam-xam yi nga xam ne yàlla daf leen a tegoon ay natt ci kaw suuf waaye nee na nattu yi li muy metti metti ab muñkat la woon dafa def la ahmad ibnu hanbal defoon dañ koo dugal ci biir taal bi ah bañ waxee ibni maïn ñoom ak gaaye yéen xanaa du ngeen jéem a mel ni ahmad ibnu hanbal te ni kooku nan la nit mën a def ba mel ni moom koo xam ne dañ koo dugal ci biir taal bi lakk ko ba mu xong cur mu génn nekk oor kookaay ahmad ibn hanbal kiit kadalik jaamukati yàlla bu mag la woon ku fegu to ñoŋe moo tax benn borom xam-xam na ni kaana ismuhu ka fi'lihi wala kaana ka ismihi bi taa'at kaana saida dëgg-dëgg ku cedd la woon comme turam ndax jaamukatu yàlla la woon te jaamukatu yàlla foo ko fekk day tedd wa min almaasi waljahalat baida ak réer ak doyadi ak mooy yàlla moom da koo sori lool moom saa yi ibn al-musayyib doy na rek ci ma junjal la ab junj wan la ñu la ku feesoon dell la di géej guy tulli tulli ci xam-xam mooy ibnu amar nga xam ne ci saxaaba ya la bokkoon am na xeeti xam-xam yoo xam ne bu ko soxlawaat day ñëw ci saïd ibn al-musayyib nga xam ne du saxaaba di ko ko laaj kon foofu day dugg ci riwayatul akabir an al asabir aw riwayat sahaba an tabi'in soo demee ci xam-xamu xadis dañuy wax ni am na lu ñuy tuddee riwayatul asagir an al akabir am lu ñuy tuddee riwayatul akabir an al asagir gone yaa ngay solo ca mag ñi waa loolu de loolu lañ xamoon waaye bi yoon mu ni mag ñaa ngay solo ca gone ya ndax léeg-léeg gone mën naa yore yëf yu mag yor waaye su musaana xam lan la Omar ibn al-Khattab doon àttee moom Abdullah ibn Omar dafay dem ci Saïd ibn al-Musayyib nan la Aboubacar doon àtteeg Omar ak Ousmane géej la ci woon moom Saïd ibn al-Musayyib soo bëggee xam nag ku mën a solo ci Abu Hurayra da ngay dem ci Saïd ibn al-Musayyib lu ko waral ndax borom la woon Saïd ibn al-Musayyib moo doon denc doomu Abu Hurayra bu jigéen kon jaam ko ci yàlla ngoo bokk na ca la cay firndeel giñ na ci yàlla nee na dund naa ñeen fukki at wala fanweeri at wala juróom fukki at ci ay riwaayaat yoo xamante nii julli gu ma julli sa jàkka laa koy jullee te it musumaa xool ci ndomu kenn xam ngeen luy musumaa xool ci ndomu kenn mooy la musumaa nekk ci sàppe ginnaaw boo nekkee ci sàppe ginnaaw da ngay séen bopp ginnaaw kenn waaye boo nekkee sàppe kanam moom miir ba rek ngay seen maanaam dafa bëgg a wax ni loolu may sàmmonteeg dem jàkka ca sàppe bu njëkk ba laa daan nekk mu ne daaw ma xool ci ginnaaw ndogu kenn amr ibni dinar nee na keroog bi zayd ibni thabit paatoo abdullah ibni abbas dani ay xam-xam de dem na xam-xam dee na saïd ibni al musayyib daal di koy nettali daan ne waawaaw abdullah ibne abbas it ba mu dee de loolu laay wax xam-xam dee na moo tax it saïd ibne sayd bi mu faatoo ñun ñëpp loolu la ñu war a wax xam-xam dee na ibne xibbaan ci téeréem boobu di attiqaat nee na sang la woon ci taabiuun yi ku amoon xam-xam la ku am diine la ku fegu la te jaamukatu yàlla te ami ngëneel waa xijaas yépp daje woon nañ ni moo fa ëppoon xam-xam firim gént moom kéemtaanu sunu borom la ci woon deesul woote julli lu dul da nga koy fekk ci jàkka ja ànd ak loolu nag ku taroon la lool te ñeme jëflante jëflante ku tar ak buur yi nga xam ne ñoom la dajeeloon te ñu nekkoon buur yu dëng yu dëng di jàdd yoon waaye loolu muy dëgër dëgër nag noonu la nooyee te mën a jëflanteeg jaamukatub yàlla ku amoon fulla la ak faayda bokk na ci mooy nekk na ci biir jàkka ji buur woolu ko mu ni neel buur su ma soxlaa dama fekk ci biir jàkka ji bokk na ci am fullaam buur yabal na doomam ni ko demal nga labat doomu saayid ibn al musayib pour takk ko mu ñëw mu ni ko sama doom duma ko may doomi buur wala kaana gu mën a jaamu yàlla laa koy may dóor nañ ko ca tëj nañ ko ci kaso dóor nañ ko wenn yoon téeméeri yar dóor nañ ko beneen yoon ñeen fukki yar dóor nañ ko beneen yoon juróom-benn fukki yar lenn lu ca nekk ay xeeti natt la woon mu di ko muñ laa sakka ni kii tënk bii ma def rek ku ko dégg ci dundam nga doy loo loola waroon ngaa xam ni kon kii kat du ko ndaw balaa may soobu nag ci dund saa ay bi leen mu sayib dëgg dafa am ay tomb yu ma ko goon a fàttali sax mu fàttali leen ko mooy bis njëkk mooy xam ngeen ni bind yu mel nii dafa bokk ci bind yu am solo yi ndax li ëpp suñuy jataay bu ñuy waxtaanee mag ñu baax ña saxaaba ya la ñuy faral di tudd li ëpp boo seetloo sax xalaqaat yi wax ci wàllu xam-xam xayaatu saxaaba ngay faral di gën a dégg waaye bind boo xam ni xayaatu taabiin ca lay wax loola néew na lu muy am loola nag dama jàpp ni lu war di am la ndax amaan na kenn dana dégg saxaaba ya mu ni ah ñii de ay saxaaba lañ xam ngeen ne ku dund ak yonent bi nii rek nga war a mel kon kenn mënta mel ni ñoom fekk mbir ma demeewut noona waaye bu ñu indee ñeneen ñu dul ay saxaaba maa ngi jàpp danañ xam ni kon mbir mi ku jéem rek yàlla dimbali ko dina mën kooku benn tomb la ñaareelu tomb bi dafa jaadu woon bind yu mel nii ñu di ko bari bañ ko di néewal amaan na dars bi wala bind bi wala tarjama bi mu nekk fatihatu xayrin ci buntu boobu ñu ngi xalaat insha allah bu koor gi jàllee dees na am bind boo xam ni xëy na ñàkkul ñu ko doon sàkk ñu di ko leen ko defal ci buntu bii di xayaatu taabiin li ma gën a yaakaar nag mooy du nekk fii comme ñu ngi fiy def xayaatu saxaaba waaye daal tarjama ji dana nekk fatihatu xayrin ci buntu boobu ñu mën di am bind boo xam ne spécial lay doon di ca waxtaanee ñooña nga xam ne bokkuñu woon ca saxaaba ya ci la ñuy xam ne mbir mi ndekete ku jéem rek am dimbalul suñu borom man ñetteelu mbir bi nga xam ne bëggoon naa koo tàmbale mooy gis nga bu ñu jàngee dunduwaa ji ba noppi ci la ñuy xam nag naka la sëriñ di mel ñi ñooy ay sëriñ la maanaam ñi ñëw ci seen gannaaw ñëpp képp ku melul nii jegewul ñii yégal ni ko ko bu tuddee boppam sëriñ du ko bu ko ko nit ñi tuddee du ko ndax sëriñ kat dafa am ay critère ay melokaan yoo xam ni kuñ war a topp mu nekk sëriñ di jàngale di gindi ay nit kooku da ngaa war a am loo ëppalee nit ñi nag ci ci yàlla ndax bu dee àddina moom jëru nga ci ëppale nit ñi ndax àddina moom defe naa pour ñu am ci sëriñ bari na lool waaye àllaaxira pour ñu am jëf sëriñ nag faw nag sëriñ bi ëppale la dara ci xam-xam ci ragal yàlla ci ñorog jub ci dëggoog sellal ci dëddu àddina ak moytandiku puukare nekk poñet mi jàpp naa ni kon ab copie bu leer mi ngi nii tey ñu mën cee nag xam ndax ñi nga xam ne ñoom ñooy wooye seen bopp yépp ay sëriñ ñoom lan wala déet ak ñi ñu koy jiiñ ñépp ndax moom lan wala déet tomb bi ci wuñu nag mooy ñu ànd xam ni mbokk yi bind bii day bind la boo xam ne buñ ko teewloo ñu def ndànk insha allahu dinañ ci jëriñ la tax ñu cay jëriñu mooy aji wax ji nekkul ni moom dafa dund li muy wax lépp déedéet waaye kii wax ak ñiy déglu ñëpp ci njàng la nekk ki gën a ñor nag mooy ka sunu borom doon wax alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana maanaam bu ñuy wax yow da ngay jàpp ni kii moom man lay waxal kii muy wax nii war na maa mën a mel ni moom su fekkoon mënunoo mel ni moom kon deesu nettali seen dund su ko defee du ñàkk moos li mu wax lépp ci bind bi soo ko mënul jëfee dina am yoo xam ne boo ci jógee yàlla mën na la caa dimbali kon ñu ngi sàpp suñ borom tawfiq ak ndimbal bihi nasta'in wa bihi nastaghith nastaghith alayhi tawakkalna wa ilayka wa ilayhi anabna wa ilayhi al-masir di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq ci leeral lii nga xam ni moom mooy dundu Saïd ibn al-Musayyib Saïd ibn al-Musayyib mi ngi ko doon Saïd ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn Aiz ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi al-Madani sayyidu tabi'in noonu la ko borom xam-xam siyaare bi tarjamaalee saïd doomu xaz musayib maam ji mooy xazn doomu abi wahb doomi amr doomi aiz doomi imran doomi maxzum mu bokkoon ci giir gu ñuy wax giir ab quraychin bokkoon ci waa madina waaye nekkoon ab sang ci sangu taabiun yi saïd ibn al musayib dàkkantalam moo nekkoon abu muhammad dàkkantalam moo nekkoon abu muhammad xam ngeen ni arab yi te loolu du arab yi waaye loolu mooy sunna ndax yonent bi saa sam dafa digal saxaaba yi nañuy jël kunya kunya mooy nit ki au lieu que ñu koy wooyee tur yu mu tudd ñu koy wooyee ab taawam moo xam góor la wala jigéen ku amul doom it nag mën na ko wut abu muhammad aba yaxya aba isa aba ahmad aba mansour ah yu demee noonu ay tur yi nga xamante ni maam nit ki mën naa am doom mu tuddee ko ko nit mën naa bañ a am doom ba nag wuutal boppam dàkkantal ndax dàkkantal ba mu bëgg a jël rek moo xam góor la aba aïcha aba fatima aba khadija nga dàkk dàkkantal loolu sunna la du moom aada la de sunna yonente bi la salallahu alayhi wa sallam maanaam loolu muy sunna sax moom nit ki loolu la war a def maanaam dafa bokkoon ci tegginu julli ci démb ya mooy nit ki dañ ko doon wutal dàkkantal te di ko wooyee dàkkantalal loolu mooy sunna nun nag defum loolu xëy na siiwut fi nu nekk waaye loolu mooy sunna ibni saadin nee na toxal nañ jëlee ci ali ibni zayd mu jëlee ci saïd ibni musayib nee na maamam mi ngi doon xasna te xam ngeen xasna mooy njàqare xasna mooy tiis di njàqare waa ji dafa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi ne ko góor gi noo tudd mu ne ko man xasna laa tudd man njàqare laa tudd yonente bi ne ko déedéet maanaam xasan mooy lu jafe wala njàqare wala tiis noo tudd mu ne ko xanaa lu jafe yonente bi ne ko déedéet bul tudd lu jafe lu jafe baaxul tuddal lu yomb tuddal sëhl defe naa looloo gën a baax bul tudd xasan lu jafe waaye tuddal lu yomb muy sëhl waa ji ne tekk ba mu yàgg mu ne ah li ma ci jaaxal de mooy sama bàyyi noonu la ma tuddee te nit ñi loolu lañ ma xamee yonente bi teg Saïd ibn Musayyib da daan toog ba mu yàgg mu ne sunu maama nu toll mu ne ba ko yonente bi waxee tuddal sahl muy lu yomb booba la waroon tudd lu yomb mi ngi nii tudd lu yomb mu tudd lu jafe gis nga sunu famille bi fi ne lu jafe rek la ñuy dugg xana dëgg de ku xool dund Saïd ibn Musayyib da ngay gis ni ak dundam yëpp ay jafe-jafe la ba jeex donte nag ku tedd la woon kon yu mel noonu yu mat di bàyyi xel la léeg-léeg maanaam nit ñi danañ jëfandikoo tur yoo xam ni musiba moo ci nekk ay musiba ay musiba moo ci nekk lu mel noonu nag baaxut fii boo dikkee ci surtout nag ci jigéen ñi la ëppee da ngay gis lu mel ni du fi yendoog xottu leget ak sagaru sa nag ah kenn bëggul ko kenn bëggul kenn bëggul dara ah amul yaakaar ah yow bu ma amee doom nga ne amul yaakaar kay bu ma amee doo am yaakaar kenn bëgg ko kenn bëgg ko ah bu kenn bëggul kay wax dëgg yàlla baaxut du fi yendu ah comme ndaw si comme am doom saa bu amee doom doom ji faatu ñu ni comme du fi yendu lañ koy tuddee du fi yendu mooy nañ nax yàlla loolu lay tekki ne nañ nax yàlla maanaam nañ ni yàlla ah kii de nañ ci ñàkk yaakaar du fi yendu su ko defee mu daal di yendu kon loolu wax dëgg yàlla wax yëfi yëfi dox la moo tax nit ki dafa war a xool loo xam ni musiba amu ca ndax gàtt nga gàtt nga dafa am gàtt moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam ba mu ne ko noo tudd mu ne ko lu jafe mu ne ko lu jafe de baaxut da ngay tudd lu yomb ah defu ko moo tax mu ne sunu maam moo nu tooñ Saïd ibn Musayyib borom xam-xam yi dañoo juuyoo ci juddoom ñenn ñi nee nañ ci xilaaf ak Omar ibn al-Khattab bi mu amee ñaari at ci la juddu ñenn ñi ni déedéet bi mu amee ñeenti at ci la juddu ñeneen ñi ni déedéet judd na ñaari at omar doo ko faat kon wuute googu moo ci am boo delloo ci téere mel ni séeru alamin ni bala ak yu ni mel da ngay fekk ñu wuute waaye ala kullin li wér moom mooy fekkee na omar ibn alxataab fekkee na omar ibn alxataab moo tax ibn saadi nee na muhammad ibn amr nee na li ma gis de mooy ci juddoom mooy ñaari at bi mu jàllee ci xilaafat omar ci la judd kon fekkee na omar ibn alxataab donte borom xam-xam xadis yi juyoo nañ ci ndax solo na ci moom wala déet waaye li gën a dëgër mooy mën naa solo ci moom ndax xam ngeen ne Omar xilaafaam yàgg na ah te ko ñaari at ci xilaafaam bu ko juddoo balaa paas war naa mën a solo ci moom solo ci moom ak fekkee dund nag bokku ndax nit mën ngaa fekkee di dante doo solo ci moom waaye liñ gën a yaakaar mooy solo na ci moom te it gis na ko it nag naka la meloon ak naka la doon dundee moom Saïd ibn Musayyib Saïd ibn Musayyib mbokk yi ku ragaloon yàlla ku ragaloon yàlla la subhanahu wa taala bokk na ci firnde yi ragalam yàlla mooy moom la daf daan wax ni fii ci àddina de man saïd amul fitna juma ci tiit ba mel ni fitna jigéen mu ne man jigéen rek laa ci mu yàqal allahu akbar mbokk yi góor gu ragalee yàlla nii amee xam-xam nii moytoo nii fegoon nii nekk montagne ci montagne xam-xam su dee moo tiit lii ñun lu ñu war a tiit ñun ñun rek lay jàngal mu ne li ma gën a tiit mooy fitnay jigéen gars yi naan ko waaw inna mithlaka la yuridu nisa wala turiduhu nisa yow looy tiit ci jigéen yow màggat gu mel ni yow jigéen soxlawu la soxlawoo jigéen fi nga toll mu ne ko wa ma aqulu lakum li ma leen wax xam naa ko te jamono joj ma kaana shayxan kabira boo màggat la woon lool abil xusn nee na saïd ibnu musayib mag la woon moo xam ne boo ko masaala gis bopp bi ak la nga xamante ni mooy sikkim bi dafa weexoon taal loolu nag ci mu jëntal dundam lay doon Muhammad ibn Hilal nee na benn bis gis naa Saïd ibn Musayyib mi ngi kaalawu mi ngi sol benn maxana bu xaw a am tuut nii mu kaalawu daal di def ay maama mu daal di wër nee na kaala gaa ngi am ay traité yu xonq kaala gu weex la bu am traité yu xonq mu ne mu daal di koy sànni lu toll ak sebre muy wadd ca gannaaw comme ni nga xam ne amaana loolu la ñuy def Saïd ibn Musayyib mbokk yi borom xam-xam yi lan lañ wax ci moom jàpp naa ni liggéeykat dëgg liggéeykat yaa ko mën a seede borom xam-xam dëgg borom xam-xam yaa ko mën a seede ah def kata lu bon def kata lu bon yaa ko mën a seede maxuul nee na tufqu l arda kullaha fi talabi l ilmi fama laqitu ahadan a'lama min said bin al musayib mu ne man de xaw tuuti kon wër naa suuf si yëpp di sàkku xam-xam wër naa suuf si yëpp buñ ko waxee nag mooy fan doon sàkkoo xam-xam yëpp ci àdduna bi wër na fa waaye mu ni gisuma koo xam ni fees na ci samay bët ci xam-xam ba mel ni Saïd ibn al-Musayyib Ali ibn Madini nee na laa aalamu fi taabiina awsaa ilman minhu wa huwa indi ajallu taabiin Ali ibn Madini nee na xawma ci taabiun yi day ku gën a géeju ci xam-xam ci Saïd ibn Musayyib man sax damaa jàpp ne taabiun yi sax moo ca gën a tedd nag faf ahmad ibn abdillah alajali nee na kaana rajulan salihan faqihan wa kaana la yaxudu alata wa kaana lahu bidaatan bidaata arbaamiati dinar wa kaana yattajiru biha fi zayti wa kaana awa ahmad ibn abdillah alajali nee na waaju baax la woon moom saïd ibn musayib borom xam-xam bu mag la woon nee na moom sax day ca jamonoom nga xam ne borom xam-xam yi xam ne dañ leen di wutal ak ato booba lislaam mi ngi dox xare yi di am ñu am lu ñuy tuddee baytul maal muy banque ab jullit ñi ca la alal jullit ñi nekk borom xam-xam yi nga xam ne ñoom dañuy jariñ lislaam dañ leen doon daggal ay salaire di leen fay mu ne moom bokkoon na ca ñañ doon fay waaye bu weer dee daawul jëli salaire am fa la koy bàyyi nee na soxlawul allahu akbar mu ne soxlawul salaire moom daal amoon na daal ñeenti téeméeri diinaar ci xaalis seen xaalis yoo xam ne nee na daf koo jëloon jëndee ko marchandise di wër di commerce moom diw la doon jaay diw xëy na diw ñoor diw tiir xeeti diw yooyu mu ne sax benn bët bi dafa yàqu woon abu zura nee na ci waa madina ci giir ak quraysh imam ju mat imam mi ngi nii muy saïd ibn al musayyib abu xaatim nee na xawma ci taabiun yi ku ko gën a ñor gën koo yeewu te it gën koo mën a soloo xadiit ah mu ni moom sax nag moo gën a wér ci ñiy soloo jëlee ci abi hurayra ci ginnaaw abu hurayra maymun ibn mihran nee na ñëw naa madina ma laajte waaw dëkk bi kan ngeen jàpp ni moo fi ëpp xam-xam nee na ñu yebal ma ci saïd ibn al musayyib te xam ngeen maymun ibn mihran borom xam-xam bu mag la woon maxuul nee na keroog bi saïd ibn al musayyib faatoo ci la ñëpp yem mu ni keroog bi saïd ibn musayyib faatoo ci la ñëpp yem luy loolu nee na ba saïd ibn musayyib daan dund amul ku daawut ñëw ci xalqaam jàng si ñëpp même mujahid nga xam ni kéemaan suñu borom la woon ci xam-xam ci tafsir ndongalu sëkk sës rëkk ci abdullah ibne abbas doon na ko ci xam-xamu tafsir même mujahid sax la doon ñëw ci xalqab saay ibne sayid di jàng si kon daal maanaam koo yaakaar ci xam-xam doon na ñëw di jàng si mu ne ba mu faatoo kon ñëpp ñoo yem ndax ku mel noonu amatu fi ba ñëpp di daje ci xam-xam xalqam di fa jàngee si moo tax benn bis mujahid da koo xool ba mu yàgg mu ne ko yow fii ak yaa ngi dund nit ñaa ngi ci insha allah qasim ibni muhammad dañ koo laaj benn laaj waa ji ko ko laaj ñu ne ko ah laaj bi sax da laaj lañ ko saïd ibni musayib waaye nangam la ca wax mu ne ko comme nangam la ca wax man duma la tontu foofa laaje mu ne zaaka xayruna wa sayiduna kookaa lu gën te kookaay sunu sang fi mu toll nii jaamukatu yàlla la woon bu mag mbokk yi te loolu lu am solo la ci dund aji gëm yàlla ci yi nga xam ne mën nañ koo jàngee ci dund ña nga xamante ni ñoom ñooy taabi'uun ya jële nañ ci ibne xarmala mu ni jële nañ ci saïd ibne musayib nee na ma faatatni alsalatu fi ljamaati munzu arbaina sana mu ni ñeen fukki at a ngi ni yoo xam ne maa ngi koy teewlu mu ni julli mbooloo musumaa xaar allahu akbar allahu akbar mbokk yi est ce que xam ngeen ne ñeen fukki guddi yu mat sëkk ku ko tegale di julli ci jàkka te tardé woo loola rek mën nañ mën nga caa am àjjana fa kay fa ñeen fukki at nag yu mat sëkk yoo xam ne nee na tardé wu ma julli mbooloo mbokk yi ñun ñu xool ñaata julli mbooloo la ñuy tardé est ce que ñun sax li ñuy tardé julli mbooloo ëpp li ñuy julli mbooloo kéema dindi est ce que ji sax bàyyi ma dindi est ce que ji su ma dindi est ce que ji kon dama naan nun day li ñuy tardé julli mbooloo moo ëpp li ñuy julli ci mbooloo ma tegal la ci ne yonente bi sallallahu alayhi wasallam benn bis dafa ñëw ci jàkka ji ba mu yàgg mu ne man damaa waroon a jël benn waay ni ko kaay jiite gis nga bu jiitee da ngeen dem ngeen lukkatal ma ngeen taalal jabalal ma ak xëddeen mu am sawara ma topp dëkk bi xam nga kër yi du ay tabax boobu ay mbaar la woon mu ni kër gu ma dem rek ma dugal xal yi rek mu taal mbaar ma ma demaat beneen kër dugalal mu taal mbaar ma mu ne ma lakk kër yi nekk ci dëkk bi yépp nga xam ni seeni borom duñ ñëw jàkk bi mbokk yi xoolal yonent bi ni mu amee woon yërmande sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne fanaane naa jooy ba fajar jot ngir yàlla yërëm xeet bi bañ leen a lakk moom muy lakk xeet bi lu xew mu leen di lakk ngir dañoo demul jàkk julli ji sa mbooloo benn silmaxa ñëw na ci moom ni ko man da yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sama diggante jàkk ja ay sayaan moo fi dox ak dex te ndox mi bu tawee day baawaan te su may dox mën na maa fa salu te awma ku ma yóbbu ndax mën naa toog yonent bi ne ko waaw xoolal mu dem tuuti yent bi ne ko ey mbaa di nga dégg na mun ko am ne ko deel dem loo fa jëlee baax na deel dem allahu akbar kon mbokk yi julli mbooloo julli mbooloo lu rëy rëy rëy doo fekk mukk ku koy sàgganee lu dul ku doye da lay doon ci wàllu diineem doo fekk mukk ku koy sàgganee lu dul ngëm yàllam lu faible lay doon doo fekk ku koy sàmm lu dul jaamu yàlla tigi lay doon innama yaamuru masajid allah man amana billahi wal yawm al akhir wa aqama alsalata wa ata alzakata wa lam yaxsha illa allah allahu akbar sunu borom ci suratu tawba mu ni foo fekk kuy dundal jàkka ku gëm yàlla lay doon gëm alaxira di joxe ci alalam ah te ragal du ragal ku dul suñu borom suñu borom mu ni ñii day ah yàlla dina leen gindi dina leen boole ci jaam yi nga xam ne leen di gindi Osman ibn Hakim nee na Saïd ibn al-Musayyib dégg naa ko benn bis mu ni ma uz azzana al-muazzinu min thalathina sana illa wa ana fi al-masjid mu ne man de man damaa seede ne trente ans ngi nii yoo xam ni noddukat bi saa bu noddee ci jàkk ji la may fekk maanaam moom balaa waxtu jullee jot bàyyi na li mu jàppoon lépp mu ni bu noddukat bi nodd ci biir jàkk ji la koy fekk kon kooku du xaar nodd di ko woo abdul munaim ibn idris nee na saïd ibn al musayib day julli na julli fajar ci njàppal gee lu tolloo juróom fukki at la hawla wala quwwata illa billah loolu moom jàpp naa ni li ma tàmbalee woon sànq ñu ne sëriñ si sëriñ si tiggéey gi nii la ñii ñooy sëriñ si waaw ñii ñooy sëriñ si maanaam képp koo xamante nii moom da ngay fanaane nelaw ba fajar jot moom yàgg ñun ñëpp a yem ñii ñooy sëriñ si nee na jàppal gee julli na ci fajar lu toll ak juróom fukki at saïd mu sayib teg ci ni maa faatat li takbiratu l ula mundu xamsina sana mu ni li ma fàttaliku juróom fukki at yooya day kàbbaaru armal du ma ci raw ndax bu noddukat bi nodd ci jàkk ji la may fekk kon kàbbaar bi mënu maa raw mu ni wamaa nazartu fi qafa rajulin fi lsala mundu xamsina sana mu ni man du ma taxaw di xool ndogu kenn ci julli bi déedéet xanaa ndogal imam kese ndax moom moom na mu ne sama kanam waaye moom nit ñee xool ci man waaye du ma fekk du ma nangu kenn di ma féete kanam mooy ci sàppe kanam ba lay nekk ñii ñooy sëriñ si mbokk yi yazid ibni xaasim nee na saïd ibni musayib sax moom li ëpp ci bis yi daf ko doon woor nee na bu jant sooyee moo tax waa këram li ëpp dañ daan indi ndogu ca jàkk ja lu tax bu jant sooyee ci jàkk ja la koy fekk kon xam nga ni ci heure dog di jot fekk la ci biir jàkk ja ba ñu indil ndogu firndeel na liñ la waxoon sànq ne la moom bu noddukat nodde ci jàkk ja la koy fekk te moo ne commerçant la da doon liggéey da doon liggéey bul fàtte ndax newoon naa la da doon jënd ko jaay ci wàllu diw la doon jaay diw ñoor diw tiir diw yooyu imran ibni abdillah nee na saïd musayib nee na ma azallani baytun bil madinati baada manzili illa an aati ibnatan ibnatan lii fa usallima alayha ahyaanan nee na man keppaara kenn du ma keral ci yéen ñii yéen waa dëkk bi maanaam aw ma waxtaanukaay la ma ko wax mooy daal sama waxtaanukaay fenn la sama doom bu jigéen xanaa ma dem këram seeti ko nuyu ko génnaat dem moo tax moom xamoon nañ ko këram liggéeyam bariwuloon ak génn ibn xarbala nee na dama wax bard di surgab ibn musayib ni ko waaw ibn musayib moom nu muy jullee ci biir këram mu ne ko ah moom de xam naa ak julleem naa fi la bari na lool li ma ci xam daal mooy day jàng saar wi nga xamante ne mooy suratu sodd wal qur'aan di dikr muy saaro nga xam tafsir nañ ko fan yi passé kon saayib na sayib mi ngi noonu moom bariwuloon lu doon génne ci gémmiñam ay way way nag su ma ko waxee mooy way yu dagan yooyee sax laa wax nga xam ne da ngay wax ay wax yoo xam ne ay bayit dañ koy tëddee muy shi'ar du ma nee way nag bokkut ak lii ngeen xam muy mooy yàlla yu ñuy def déedéet way yoo xam ne ay baat ngay génne yu baax yu nit ñi mën a jariñoo amul instrument amul dara moom sax daawul def loola faf nee na léeg-léeg bu daan génn dañ koy gis mu def tànku neen léeg-léeg mu sol menn mbaxana moo xam ne mbaxana mu doyade lay doon daf daan wat ay mustaasam wala daf ko daan jéem ah kum masa dajeel daf lay nuyu te it nag kenn xameewu ko reetaan yu bari ndax nee na tallu woon reetaan yu bari lii moo nekkoon aw melokaanam moom Saïd ibn Musayyib xoolal nag koo xool reetaan ya bari lool mu mel ne kuñ garanti àjjana koo xool nga xam ne fu mu jëm daanaka dox sax du ko def wa war waaye koy yóbbu koo xool foo ko fekk la gën a rafet lay sol doo gis ci moom benn màndargam dëddu àddina bàyyil kooku ma tudd sëriñ maa la ko wax déedéet sëriñ si nii la ñu mel loolu moo tax ñuy jàng tarjama gaa yi ndax original yi ñoo nekk nii maanaam gaa yi ñooy original yi ndax xam ngeen ni ñii ca garanti galam bokk ndax yonent bi dane xayru nnaasi qarni tumma alladina yalunahum tumma alladina yalunahum ñi gën ci xeet yi xoolal sa yonent moo wax sallallahu alayhi wa sallam nee na maas gi gën ci génération bi gën ci génération mooy sama bés muy saxaaba ya ak taabiuun ya te kii ci taabiuun la bokk kon ci original yi la bokk moom waa ji maanaam kii moom ba muy dund yàq yëpp yàqoogu kon nu mu mel rek maanaam nañ yëg ni kon mbir léegi nag soo gisee mbir mi bu yàggee muy yàqu misaal mi ma koy jox mooy jottali tey su ma la waxee benn wax nga dem jottali ko kële kële jottali ko kee kee jottali gis nga wax ji balaa toll waat ñu yokk ci mbaa ñu wàññi ci ñu yokk ci mbaa ñu wàññi ci tey suñ deseene woon benn oto jox ko waa ji ni ko deseene ko jëlal copie bi nga deseene ko li kii deseene keneen deseene ko balaa dellu si waat léegi oto bi soppeeku lu yàgg wër rek soppeeku waaye nag soo bëggee xam yu wér ya nag dëgg-dëgg ñii la léegi nag am na ñoo xamante ni tey nii lañ mel di ko dund ñii lañ mel ci ko dund même fii ñuy dund Sénégal am na fi léeg-léeg ñu ne fi la dafa ay mag yoo xam ni saraxatan da ngay xam ni ñii ci tànk ñii lañ jaaroon waaye ñooñu nag ñu néew lañ nit ñi sax xam nañ ko nit ñi sax xam nañ loolu xam nañu ñoo leen néew leen rek ilmuhu rahimahullah saïd ibn al musayib nan la meloon ci xam-xam yaxya ibn xibbaan nee na bopp la woon moom saïd ibn musayib ci xam-xam ci jamonoom bal sax nag buñ daan fatwa ca jamonoom comme lañ doon wax ca malik la yufta wa malikun fi lmadina bu fi kenn ubbee ci wàllu diine fi yeg malik mi ngi fi saïd ibnu musayib noonu la meloon ci jamonoom ñëpp dañ ko doon bàyyi moom mooy wax ci wàllu diine xataada nee na gisuma koo xam ni diggante lu araam ak lu dagan xam na ko ba mel ni saïd ibnil musayib hisham ibni saadin nee na dégg naa imaamu zuhri muy ibni shihab az zuhri ah mu laaj koo xam ne jëlee na ci saïd ibni musayib ah ñu ni Saïd ibn Musayyib day jël na xam-xam ci Zayd ibn Thabit jël na xam-xam ci Saad ibn Abi Waqqas jël na ci Abdullah ibn Abbas jël na ci Abdullah ibn Omar doon na dugg ci biir kër yonent bi ci ay néegam sallallahu alayhi wa sallam di laaj soxna ya ku mel nekk Aïcha ku mel nekk Umm Salamata dégg na ci Othman ibn Affan jële na ci Ali ibn Abi Talib jàng na ci Suhayb jàng na ci Muhammad ibn Maslama jàng na ci Abi Hurayra ndax moom moo nekkoon goroom moo taxoon doomam bu jigéen jàpp naa ni borom xam-xam dañuy wax ni ku bari ay sëriñ day war ni jàng nga lu bari bari ay sëriñ mandargam jàng nga lu bari la day tekki ni yow muy jàng nga lu bari ndax ku ne da nga am loo jëriñu ca moom abbas ak duuri nee na jël nañ ci yaxya ibni maaqil nee na saïd ibni musayib day ay mursalaatam moo gën sax mursalaat xasan al basri mursal mooy lan mooy koo xam ne déggeewoo ci moom waaye nga nettali ci moom ci misaal Saïd ibn Musayyib léeg-léeg nga dégg mu ni jëlee naa ci Aboubacar te xam nga gisul Aboubacar fekkante wut ak Aboubacar loolu nag li koy waral mooy day jàng benn xadis boo xam ne ci Aboubacar la jógee au lieu que mu ni jël naa ci diw mu jëlee ci Aboubacar mu ni jël naa ci Aboubacar direct loolu nag moom la ñuy tuddee mursal ci xam-xamu xadis moo tax borom xam-xame boole ko ci xeet yi daif lu tax ndax ki nga tëb lan dul xam kan la loolu nag xam-xam bu xóot la ci xam-xam mustalax waaye nag bu dee Saïd ibn Musayyib moom jàppal ni moom ay mursalaatam yu wér la Abu Talib nee na dama wax Ahmad ibn Hanbal ni ko Saïd ibn al-Musayyib mu ni waaw ndax gis ngeen ku mel ni Saïd ibn al-Musayyib ak seeni bët allahu akbar xool Ahmad fàtte ne sax boppam ndax gis ngeen ku mel ni Saïd ibn al-Musayyib ci ay bët nee na ku ku fegu woon la jaamukatu yàllaa ngoog mu ni fóore la woon nee na nekk na koo xamante ni abdullah ibn omar sax doon na jël xam-xam ci moom soxal nañ jëlee ci malik mu ni alqasim ibn muhammad benn waay da koo laaj ci benn mbir mu ni ko mbir mii kat ndax laaj nga ko keneen mu ni ko laaj naa ko saïd ibn musayib mu ni ko lam la wax topp ko te nga xam ne loolay li wér saïd ibn musayib abdullah ibn omar saa bu amee jafe-jafe ci wàllu atte rawatina nu omar doon atte xam nga yéen a ngi dégg maa ngi naan nu Omar doon àtte nu Omar doon àtte xam nga li waral nu Omar doon àtte mooy Omar dafa gën a gudd xilaafa ñeneen ñi te xew-xew yu bare bare bare ci jamonoom la xew àtte yu bare ñi ngi ko tëree ci jamonoom kon xam ngeen ne mbirum àtte kon jamono jooju day nekk lu ñor xam-xam bu ñu war a xam moo tax nag boo déggee ñu ne àttey Omar rek loolu la woon ndax jamonoom moo gën a yaatu te it àtte yu bare bare ca la doon amee Saïd ibn al-Musayyib jaamukatu yàlla la woon bokkoon na ci borom xam-xam yu mag ya nga xam ni doon nañ leen lim ci xam-xam ca Madina muy Saïd ibn Musayyib Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ak Urwat ibn Zubayr ak Abdullah ibn Abdullah ibn Atba ak al-Qasim ibn Muhammad satam Abu Bakr ak Kharijat ibn Zayd ak Sulayman ibn Yasar ñii ñoom ngay dégg ñu leen tuddee al-fuqaha as-sab'a madina daa tolloon jamono joo xam ni dafa am juróom-ñaari fóore yoo xam ni moom masala mënta réer ci dëkk bi fii ak ñoom ñu ngi fi déedéet ak masala mu mën a doon nag ak fu mën a jógee ci addina bi mënta réer fekk juróom-ñaari ñi ngi fi ndax nin meloon ci xam-xam moo tax benn waykat tënk leen ci bayit mu ne ala kullu man la yaqtadi bi aimatin fa qismatuhu diza an alxaq xaarija فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد سليمان أبو بكر خارجة مني man de maa ngi leen di xamal ni ku dul roy ci li ngay def ab imaam nee na yëgal ni sa li ngay atte atte bu jeng la jaarul ci dëgg jël leen juróom-ñaar ñaangoo mooy Ubaydullah ak Urwata ak Qasim ak Saïd ak Suleymaan ak abu bakr ah ak ki nga xamante ni moom mooy xaarija saïd mooy saïd ibn al musayib saïd ibn al musayib mbokk yi ku yàlla man loo woon la firi gént firi gént nga xam ne suñ jamono ji tey bari na waana moos ñu koy woote woo ah defe naa gis ngeen loolu ci télévision yi benn waay boo xamante ni moom daanaka am mbaam mbaam mu doon nelaw sax gént ak gént sax bu ko wooyee téléphone mu firil ko maanaam mbaam mu doon nelaw ci guddi gi sax gént ak gént bu ko wooyee téléphone mu firil ko moom loo wootee wax rek mu firil la ko loolu jàpp naa ne yéen ñi am xel te même jànguñu sax même ku ku jàngul te am xel boo koy suivre sax nga xam ne lii lii lii yan wax maanaam mbir mi demee wax ci déedéet kon firim gént dëgg la lu am la kenn weddiwu waaye firim gént don la bu yàlla yi maye loolu bàyyi nañ ci xel dëgg la nag dees mënees na koo donn mënees na koo donn donn mooy lan mooy da ngay fekk en général firibkatu gént day fekk bàyyam da koo mënoon wala yu bari bari dañ koy doon mën naa nekk waaye nag firim gént mayu yàlla la subhanahu wa taala bu yàlla yi séddee du ñëpp koy man firim gént nag lu garaaw la moo tax yonente sa sala mu ni gént saa boo géntee nee na sa gént gi bul ko nettali lu dul ab soppe wala ab xarit la ko waral mooy gént dañ koo lonk ci tànku picc suñuy firi muy wan gis nga saa boo génnee géntee benn mbir wax ko waaju mënta firil gént mu firil la ko lam firi bu tombeek musiba ja musiba ja yàlla da koy wàcc mu tàbbi ci sa kaw gis nga de lu garaaw la moo tax gént lu jara teey la ah borom xam-xam it war a ragal yàlla ba ku mënta firi gént nga xam ne mënoo firi gént mën a firi gént nekkul obligation pour borom xam-xam boo gis na ko mën don la bu yàllay maye comme na ko yusuf waxee woon wa allamtani min ta'wil ahadith saïd ibn musayib nag mbokk yi ci firikatu gént yu mag yi la bokkoon imaamu zahabi nee na toxal nañ jëlee ci imaamul waaqidi mu ne saïd ibn musayib kat kaana min abari nnaasi lirruya bokkoon na ci ñi gën a mën a firi gént ci jamonoom ndax mi ngi ko jëlee ci asma doomu abubakar te asma mi ngi ko jëlee ci baayam di abubakar ah asma mi ngi ko jëlee xam ngeen abubakar firikatu gént bu mag la woon néewaana moos loo daan gént ci abubakar ndax abubakar firikatu gént la woon doxkatu mbokk la woon defarkatu lu yàqu la woon maanaam daal moom yàlla da koo mayoon ay may yu bari moom abubakar bokk na ci mën a firi gént gént nag yàlla da ciy wane subhanahu wa taala du caagee nit ku baax rek mooy gént lu baax nit ku bon mooy gént lu bon déedéet nit ku baax mën naa gént lu bon nit ku bon mën naa gént lu baax nit ku baax di gént lu baax nit ku bon di gént lu bon waaye gént benn kéemaan la ci kéemaani yàlla yi des ci mujjub jamono ginnaaw ab yonent ab yonent ab yonent dootul amati waaye am na yoo xam ne yàlla day am na ñoo xam dañuy tëdd ba guddi yàlla wan leen subhanahu wa taala loolu bu ko kenn dàqal saxal am na ñoo xam ne jànguñu waaye lu ñu gént bu ñu yeewoo gis ko loolu defe naa xam ngeen ci dara am na ñoo xam ne jànguñu waaye néew na man xam naa ko xam ne jigéen la jàngu waaye néew na lu muy gént lu dul boo yeewoo rek mu gis parce que ma koy wax ne ko yow sa gént gént gu garaaw la ak yeneen ak yeneen ak yeneen gént léeg-léeg dana nekk lekk ba rekk moo koy waral googu moom du gént ak dara du gént ak dara da ngay gis waa joo xam ne daa lekk ba rekk la xelam nekk rek lay gént mbirum lekk rek lay gént am na misaal bu ñu ciy joxe waajo ne woon daa bëgg a gént gis yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ñëw ci borom xam-xam ne ko nu may def ba gént gis yonent bi mu ne ko da ngay lekk ba suur gëdd waaye booy tëdd bul naan ba ngay bàyyi moom nga bañ a naan ba tëdd waa ji mu tëdd gént ay bëri koy ndox ak ay tawat lu ne mu di ko gént bi mu yeewoo nettali ko borom xam-xam mu ne ko la sa xel ma nekk rek moom nga doon gént ah comme bi mu tëdd daa mar aw mar aw ku ku mar kay xam nga ne li sa xel nekk rek ngay gént mu ne ko ni sa xel nekkee ci mar ba nga gént ndox bu ko sa xel neexoon ci yoon si mën nga kaa gént ngir maa ko am na gént goo xam ni borom bi day wan nit da koy wan da koy wan am na jigéen joo xam ni dafa gént dafa nekk kuy gént di gis mu gént guddi gis doomam yéeg ci benn avion di voyage accidenté dee mu yeewu ñëw fekk doom ji di préparé benn voyage di tukki mu ne ko doo dem mu jëm kaw jëm suuf doo dem doom ji nattaan ko nattaan maire bi def benn PS rek ba tëj ko ci biir néeg bi fekk ñu ngi ci wetu aéroport maire bi bàyyee bàyyee bàyyi ba ba mu wóor ko ni bol bi mu waroon a yéeg dem na mu ubbi bunt bi fekk waa ji dee ci kaw lal bi yu mel noonu day faral di am day am loolu nag du caage nit day am xam-xam wala nangam suñu borom doo koy defal déedéet am na ñoo xam dañuy gént di gis mën na nekk gone gu ndaw gone gu tuuti gone gu ndaw ndaw ndaw ndaw ndaw mën naa gént sax mu gis kon loolu nañ ko bàyyi xel ci wàllu gént ibni saadin boo delloo ci at-tabaqaat wala nga dellu ci seeru alamin nubala ba imaamu zahabi di nga wax fekk wax yii may bëgg a lim muy ay mbir yoo xam ni firim gént mu leer la woon bàyyi ko ci saïd ibnil musayyib bokk na ci ñu toxal jëlee ci amr ibn habib ibn qalia nee na benn bis damaa toog ci saïd ibnil musayyib fekk booba maa ngi ne ci ay jafeñ-jafeñ loo xam ni yàlla rek ko xam maa ngi amee ay bor ma toog ci pegg saïd ibnil musayyib ma jékki-jékki rek gis benn waay di xaabar xaabar yi ñëw waa ji yegg si daan ni ko man de damaa gént damaa gént Abdul Malik ibni Marwan Abdul Malik moo nekkoon amirul muminin mu ni damaa gént Abdul Malik ibni Marwan ah di xeex ak moom ma xeex ak moom ba dóor ko mu jaaxaan ci suuf si ah nee na ma daal di koy tër nii takk fee takk fee takk ñaari tànk yi saa yi mu sa yëg sigg xool ko ñu ko yow géntoo gént bi ñu ko yow mii géntoo gént bi dégg nga de maanaam firim gént bi sax ñëwagul dana ko yow du yaa gént gént bi wax ma dëgg mu ni ko maa ko gént mu ni ko man la géntoo gént gi gént gi du sa gént yow keneen la wax ma ko ko gént boo ma waxul ko ko gént du ma ko firi mu ni ko abdullahi ibne zubayr moo gént gént gi yónni ma ko waaye bëggu cee feeñ moo tax ma ñëw waxee ko noonu gis nga de jëmmi jëmmi wax gi mu ko wax ni ko géntoo gént gi rek kéemaanu yàlla la subhanahu wa taala mu ne ko gis nga gént gi géntoo ko ba mu ko waxee ko gént mu ne ko gént gi bu nekkee dëkk day abdul malik ibni marwan mooma ñu nan moo jaaxaan dina rey abdullah ibni zubayr moomu nga xamante ni moo gént gént gi tayit bu ko reyee ba noppi ñeent yooyu ngay seen yu tàllalu ñeenti xalifa la yoo xam ne ay doomam la ñuy doon ñëpp ku nekk da nga toog ci sees bi mu toog te nam ko waxee woon na la am na la amee ndax abdul malik ibni marwan am na ñeenti xalifa yu toog ci gannaawam ah ak ki nga xamante ni mooy nu mu turati te moom moo rey abdullah ibni zubair moo ko rey lu daal ci gàttal ndax ci xilaafam lañ ko reyee hajjaj ibn yusuf moo ko rey waaye ci xilaafam lañ ko reyee beneen a ngi nii ñu jëlee ko ci ismail ibni abil hakam nee na benn waay daa ñëw ni ko man de dama gént abdul malik ibni marwan ñëw ba ci xibla jàkka ji jonkal di sal ma tëddaat géntaat ko mu jonkal sa kanamu jàkka ji di sal ma géntaat ba muy ñeenti yoon benn bu ci nekk ci kanamu jàkka ci xibla balaa koy gént muy saw mu ne ko bu dee sa gént gi wér na day ci ndiggam ñeenti nit danañ ca génne ñoo xam ne kenn ku ca nekk dina nekk imaam jiite jiit nekk xalifa waaye nag da xam naa ne nekk xalifa yi day baax na waaye mënoon na koo géntee neneen lu doon toog di saw nag ca xibla jàkk xanaa sax dama ci jàkk jay jiite sax bopp gént naa ñeenti yoon nga taxaw ci jàkk jay jiite day wax dëgg yàlla moom a gënaloon nga ne ca xibla jàkk jay saw nag wax dëgg yàlla gis nga benn waaye ñëw na ci Saïd ibn Musayyib ni ko man de damaa gént ma nekk ci ker gi ñu jékki-jékki ba mu yàgg ma jóge ci ker gi dem ca naaj wa mu ne ko ab jullit nga waaye di nga murtat génn ci lislaam maa la ko wax mu ne ko yàlla xam na ne du man maa génne sama bopp ci kër gi dem ca naaj wa waaye dañ maa génne ci kër gi yóbbu ma ca naaj wa mu ne ko dama ni li ma la wax du dañ même bu dee loolu la it nag dinañ la forcé génne la ci lislaam nga dem ci kéefar effectivement benn xare am yéefar yi jàpp ko mu dem mu sonn lool ba daa génn ci lislaam waaye mu jëna nag dellu si waat bi mu dellu si waate ci l'islam dellu si ko nekk dellu si ko rafet ci la commencé nekk li gént gi naan saaj mu say waxoon na wax imran ibni abdillah nee na alxasan ibni ali mooy kan mooy kan xasan ibni ali mooy kan sénégal la wax ah kon mooy kan doomu ali ibn abi talib sëtëb yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis daa gént tëdd ba guddi ñu bind fii ci jëbi qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad mbind mu leer mu yew net li ko waa këram waa këram kontaan lool di nettali affaire xam nga loolu affaire dañu neex a nettali bi nettali bi yegg see ci Saïd ibn Musayyab mu ne ah loolu da jërta kontaan la may wane mooy aw fanam li ci des bëreetul semaine lan ci teg rek mu faa Sharik ibn Abi Numayr nee na dañoo wax Saïd ibn Musayyib benn waay daa ñëw ni ko man daal damaa gént gént bu kéemaan mooy damaa tëdd ba guddi gént sama bëñ yëpp boor loolu mooy la bëñ yëpp fàq wadd affaire bi jaaxal ma lool lool lool mu ne ko li muy wane mooy ku nar a gudd fan nga mooy di nga dem ba màggat say bañ di fonq di wadd te fekk say doom gis nga de nee na sharik ibni abi numayr nee na said ibn sayib nee na ah gént gis tàndar ma day ci nelaw mu ne wërsëg la wërsëgu yàlla la subhanahu wa taala wuy dikkal nit ala kullin said ibn sayib firikatu gént la woon bu mag loolu nag amoon na ci ibn sirin nag ma profité ci ibn sirin nag gis naa benn téere bu ñuy jaay ci marché naan taabir ruya ibn sirin loola lu xaajut bay wér ibn sirin jamono bind téere sax daa amul sax waaw loola doy na rek loolu rek doy loo ko pour xam ni sax loolu daa wér jamono bindum téere daa amut woon bañ ñaan moom moo taalib téere bi di firi gént ku mënoon a firi gént la moom said ah ibn sirin benn bis benn waaye ñëw na ni ko man de damaa gént di noddu mu ne ko kon day yàlla dina la baaxe nga aji benn waay ni ko ak man mu ne ko kon de di nga sàcc ñu jàpp ñu jàpp la ndoo ngay daal di koy laaj ni ko waaw yow ñaar ñi ñëpp kii mën naa aji kii te ñoom ñu bokk lu ñu gént mu ne ki gént di aj ki gént di nodd dama sigg xool ko kanam gi jox ma kanamu ku gëm yàlla te dëggu sama xel dem ci aaja wa adaan ah waasim fi nnaasi bil xajji yatuuka rijaala nee na waa ji dama sigg xool ko kanam gi nuruma lu ma xamut ma dem ca aaja summa azana muazzinun ayyatuha al ayru innakum la saariqun waaja ni daal di nodd rek yuuxu woote ni eey taxaw leen am na ko sàcc ci yéen loolu la firee gént gi yéen sa salam yeewu na benn fajar muy damaa gént benn baat jóge ca asamaan sa ñëw def ndox ma yóotu ko ah mu dëgër lool waaye man naan ci ba sama xol sedd mu des nar a dellu ma jox ko Omar ibn al-Khattab mu naan baat ba dem yoon ñu laaj ko noo koy féree mu ne xanaa dëgër ci diine këng mooy Omar ibn Khattab ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu bari yoo xam buñ ko toppoon ay misaal la ci ñu njëkk ña di gént di gis nit sax mën naa faatu sax nga gént gis ko mu tàbbi àjjana loolu moom bari na trop sax lu muy am ci borom xam-xam yu njëkk ya nit ki faatu nga tëdd ba guddi gént gis ko mu nekk ci xéewali àjjana ya ah su fekkee juumoo ci nettali bi al imaamu imaam ibni xusayma wala kenn ci ñoom bi mu faatoo borom xam-xam bu mag a mag a mag a mag a mag gént na ko gis ko mu ni waaw moom ci lu mu nekk ñu ne ko moom de imaam lañ koy wooyee sax biir àjjana fa sax maanaam moom bu dee biir àjjana imaam lañ koy wooyee foofu neexal imaam loolu de imaam bi neex na kon mi ngi noonu izzatu nafsihi wa sidquhu wa sad'uhu bil haqq fonk boppam te lu am solo nga bokk ci fonk sa bopp gis ngeen fonk sa bopp daa melokaan wuñ wuñ bañ wu mu nuróol xam ngeen fonk sa bopp daa am wenn melokaan wu bon wu mu nuróol nit ñun ñi ñëpp dañ leen di jaawale bari tiital fonk sa bopp moom bari tiital dañoo nuróol maanaam boo deful ndànk yow di nga ñàkk fonk sa bopp ngir defe ne lii boo ko defee bari tiital la boo deful ndànk di nga bari tiitar fekk da laa fonk sa bopp bari tiitar ak fonk sa bopp ñoom ñaar dañoo nuroo waaye nag fonk sa bopp ci lislaam la bopp di sol lu baax ci boo ko amee te bañ a réy réylu di lekk lu baax ci boo ko amee te bañ a réy réylu lépp détail bu lay doyadal bul fa toog fu lay doyadal bul fa dem lépp lu lay doyadal buñ ko bul ko wax am na yoo xam ni ci mbañam rus la bopp fonk sa bopp xam nga ni ah kilifa goo xam ni ñëpp ñu ngi koy diglu wala ñëpp dañ koy séentu wala ñëpp di wax jëm ci moom ah moroom bi yor kere moom juróom ji ma ci jëm taliba ku ne xam na ne daggan na waaye rafet ah kilifa goo xam ne nit ñi konk nan ko am nañ ci moom orma ak respect ah mu solu panca waaxu jëm taliba loola rafetul kilifa gu mel noona mu solub sédénement di daagar daagari ci mbedd mi même bu daganeet yooyu kenn du ko def daa am yoo xam ne fonk sa bopp la fonk sa bopp moo tax man la nag léeg-léeg day nuru bëri tiital nga foog nga bëri tiital la fekk du ko ku fonkoon boppam la saahid ibnu musayyib tes taabi'un ya saxaaba ya noonu lañ meloon waaye ku mënoon a wax dëgg la imran ibni abdillah nee na saahid ibnu musayyib de amoon na ca baytul maal alal lu tolloog ah fanweeri junni ak lu topp par weer mu war koy retiré di ko dundee waaye nee na du ko jël lu tax duma ko jël mu ne hatta yahkum allah bayni wa bayna bani marwan xam nga nguur ak bani marwan mooy nguur ak banu umayya ñoo ko fitnaal dóor yi nga dégg ñu dóor ko yëpp ci nguur googu lañ ko ko dóoree mu ne comme dañ maa tooñ nag alal ji ñuy joxe même bu ma lewee duma ko laal maa ngi xaar ba yàlla àtte maa ñoom ba pare gis nga de mu ne maa ngi xaar ba yàlla àtte maa ñoom ali ibni zayd neen dañoo wax sayd ibn sayd ni ko waaw yow lan moo tax xajjaaj ibni yusuf ak li muy lakkale lakkale du la laal mu ne ko man daal xawma lu tax ñimewu maa laal waaye maa ngi fàttaliku benn bis mas naa ànd ak baayam ñu dugg ci jàkka ji ma seen ko muy julli di këpp këppal ma xaj jël ay xeer yu sew rek ni ko ko pëyëx mu geesu xool ma ma xool ko ma sëgg fi ma sëgg mu xam ni maa ko ko sànni ca la jaaree sax nag di julli julli gu baax fas mu ne xawma loolaa tax xawma waaye daal moom daal moom du ma jege imran ibni talha al xuzaai nee na abdul malik ibni marwan muy amirul muminin dafa ñëwoon madina benn bis mu ñëw taxaw ci buntu jàkka ji yónni benn waay ni ko demal wool ma saayid ibn al musayib waa ji ñëw dal di woo saayid ibn musayib ni ko wuyul amirul muminin mu ne ko amirul muminin lu mooy doye waa ji ni ko comment amirul muminin nag ñim toll def mi ngi mel ni ñun la woo wuyul président de la république nga naan lu mooy doye xam nga loolu kenn du ko wax moom gars yi niñ bëggee ko ni ñu ni ñun ni ñu bëggee nguur ak lu neex ku président woolu rek doo ci teg baat jàpp naa ne bu la fekkoon sangu woo sax moom ngay demee wuy ji ndax yàkkam mu ne lu may doye mu ne ko comment amirul muminin di la woo nga naan lu may doye mu ne ko moom amul ci man aajo te awma ci moom aajo sama aajo ji ma am ci moom xam naa ne du faju aajo ji ma am ci man xam naa ne du faju waa ji dem nettali ko amirul muminin mu ne ko dellul woo ko nee ko maa ko soxla maa ngi ci buntu jàkka ji di ko xaar mu dal di ñëwaat mu ne ko la ma la waxoon laa lay waxaat waa ji mu ne ko gis nga yow bu ma amul woon lu may bañ man nii maa lay rey nga dee yow nga ne amir di la xam nga ñoom ay soxla lañ daanaka loolu rek lan yaakaar ni moom mooy tontu bi mu ne bu fekkente ni moom daal daa namm ci man yiw na ñëw def bu fekkee daa namm ci man musiba na ñëw def amul problème waaye bu ma soxlaa na ma fekk ci biir jàkka ji laa nekk allahu akbar noonu la julit di amee fulla ah soo gisee tey ñi ñooñ xam-xam ñu doyadal leen mooy ñoo njëkk doyadal seen bopp benn borom xam-xam mu ne walaw at anna ahla al ilmi saanuuhu saanahum mu ne gis nga ñun xam-xam bu ñu ormaaloon xam-xam nañ ko war a ormaalee rek nit ñi ormaal leen nit ñeen war a ormaalee waaye borom xam-xam boo xam ni bu président amee lu mu bëgg a daganal yow lay woo nga dikk daganal borom xam-xam boo xamante ni bu weer wi feeñul yow la nii woo nga feeñal ko yaa koy feeñal borom xam-xam boo xam ni su fekkente ni weer wi daa feeñ te jubuwut président wala wala wala wala jubuwut kilifa sàngam diw yow la ñuy woo ñu wax la ko yow yaa koy lijjanti borom xam-xam boo xam ni bu jigéen ñi amee mbootaay tuddee ko mbootaay gëryanke yi bañ nañ ko bu ñu amee conférence yow la ñuy woo gis nga bu ko defee da ngay doya di da ngay doya di nag doya daale lu xam-xam moo tax borom xam-xam ci boppam ab jullit sax ci anam gi gën a yaatu dafa war a nekk kuy fonk boppam kon Saïd ibn al-Musayyib jële nañ ci Amr ibn Aasim mu jële ci Salaam ibn Miskin mu jële ci Imran ibn Abdullah ibn Talha al-Khuzai nee na Walid ibn Abdul Malik bi mu yéegee ci xilaafa gi dafa ñëw benn bis dugg ci jàkka ji mu gis benn waay boo xam ne nit ñaa ngi ko wër fees del nit ñi wër ah bi ko nit ñi wëree mu daal ni waaw kii kan la ñu ne ko kii de mooy Saïd ibn al-Musayyib mu ne nee leen ko nañu wuy si ma xam nga buur moom daa yàgg bëgg ay ay maa fi nekk da yàgg a wane mu ne dem leen nee ko nañu wuy si ma mu dem waa ji dem woo ko mu ne ko da ngaa damaa yaakaar da ngaa juum buur woowu ma de du man la woo est ce que du keneen la woo mu dem ndaw li dem ni ko wax naa ko kon waaye nee na daa mel ni woo ko mu ni comment man lay fonto xam nga ñoom dañoo gaaw ci loolu daal di jug riir nar koo dóor ah am nañ sañ-sañ bi te bu ko doon dóor day du fayu de lan moo tax bu ko doon door du fayit lan moo tax bu ñëwoon di ko door du fayit hadis moo ci rot mooy amir yent yàlla bi amirul muminin même bu saay saayee sax bu bu la dooree muñal bu jëlee sa alal muñal mooy amir kenn du xëccal moom kenn du xeex ak moom loolu mooy sunna moo tax mu riir dem wuti ko nit ñi ndongo yi ñoo jóg dox ci naan ko kii dafa nangam déggul woon woote bi di wax ay wax ah wax ay wax ba waa ji daal di koy bàyyi ne bu dul woon loolu day dem mu dóor ko moom nag boo koy dóor day toog di la xool nga dóor ko rek ndikk laa ngoog dóoral la lay wax boo dóoree ko doyal la ko bàyyi amaana la tax mu wuy wuy jiwu ko woon mooy bañoon tooñ tekki tooñkat gis nga doon naa dégg benn waay di wax ni benn bis mu naan mu ni misaal la bu ñuy joxe rek waxuma ko pour dëggal ko wala saxal ko mu ne ah pale bii ngeen di seet de ku ko dugg boo génnee soppeeku borom xam-xam bu ko dugg boo génnee soppeeku waxuma pour saxal ko nag de waaye dama dafa am lu ma gën a nettali waaye gis nga bañ faa dugg sax moo gën a wóor la xam nga lu tax benn borom xam-xam bu mag dafa def jëf ju kéemaane teg teg taloo ko ci alquran benn buur moo invité woon gars yi ñu ñëw ci benn daje daal boo xam ne dañ doon noos daal buur bi di invité waa ji borom xam-xam naan téemaa dem du ma dem ba mu yàgg mu ne comme woote la rek naa dem nee na mu dem ba mu yeggee fekk nu mu tuddati bi kii servir mi ngi ko een muy séddale xam nga ñoom bu ñuy séddale ñu yore cuuraay yore soos yore nangam waa ji di séddale ba yegg si ci kii rek wengal ànd bi rek aw xal këpp mu lakk yére mu ne maa ko def xamoon naa ne xel moo fi dikkee danaa lakk ndax yàlla moo ne wala tarkanu ila alladina zalamu fa tamassakum annaar yàlla nee na bu leen dem ci tooñkat yi bu ngeen ko defee rek safara lakk leen xam nga loolu aaya mi ngi suuratu Huud defe naa de yàlla mu ne bu leen dem ci tooñkat yi su ngeen ko defee safara lakk leen mu ne xamoon naa ne su ma ñëwee dinaa lakk gis nga yu mel noonu da lay wan ni kon am na jotaay yoo xam ne boo ko mënee mooy ko mooy li gën ñoom noonu lañ doon def moo tax xasanul basri bu mosaan a romb gars yi xam naa bu doon suñ jamono ji ma ne ñu dem buntu président di jël si muurum koor suukaris koor naan yéen ñu ñàkk fayda ngeen yéen amu leen pulla yéen yéen yéen wax ay wax joxañ leen ba xolam seen mu ne gis nga bu ngeen amoon pulla ku leen soxla moo leen di fekk seen biir kër waaye yéen du ngeen fekk waat Buxaari gis ngeen li ko sonal buura ni ko woon kaay jàngaleel samay doom biir pale mu ne ko déedéet say doom buñ soxlaa nañ génn comme doomi jàmbur yi sukk jàng sa sa xam-xam taalibu moo téere pour wër di ko jàngale kër buur imaamu Malik benn waay doomi buur daa ñëw waaw daay dem nag sa waay jaaxaan ba mel ni ku nekk ci kaw lalam te naa ee nee leen Malik dama déglu waay ma laaj ko sama laaj bi Malik daal di koy xool daal di xool fële waa ji ni ko yow daa mel ni sama nguur ak baay gi dalaa neexul di moo tax mu ni ko déedéet sa nguur ak baay gi neex na waaye da ngaa ormaalul xam-xam moo tax ormaalu ma la boo ormaalee xam-xam rek ma ormaal la waa ji jug ni ñoom képp toog sukk laaj ab laajam maa ngi wëlbati ko jàkkaarloo moom tontu nii la gars yi amee wul la waaye léegi yow yow da nga yàkkam di sax ñu ngi woo la laaj la laaj faf mbaa laaj ba sax bu yeexee yow yaay dem jëli ko yow gis nga moo tax ma ni la ñii ñooy ay sëriñ ñii ñooy kopp yu bees yi yu baax yi Saïd ibn al-Musayyib mbokk yi jaamukatu yàlla la woon bu mag waaye nekkoon na koo xam ne ku amoon fulla la ci boppam nekkoon na koo xamante ni maanaam ku doon suufeel boppam la benn waaye sax nee na muy Sallaam ibn Miskin nee na jëlee nañ ci Amran ibn Abdillah mu ne man de Saïd ibn al-Musayyib de da nga yaakaar ni kii sax xanaa weñ bakkanu weñ la gën a fonk ci bakkanam bi ndax rek ni muy doyadalee boppam doyadal gi nag nekkul doyadalu xeeb sa bopp waaye doyadalu suufeel sa bopp la Saïd ibn Musayyib taswijuhu ibnatahu bis ba muy mayee doomam du jigéen ay mbokk yi bis boobu ak a jar xam bis bii de buñ ko dégloo bokk na ci yi tax nga mën a ràññee Serigne Soos ak Serigne si tey bis a ngi ci bis yi boo xam ne dafa mel ni moom rek ko am moom Saïd ibn Musayyib lan moo xew abi bakr ibni abi daawud nee na saïd ibni musayib dafa amoon doom bu jigéen abdul malik ibni marwan ñëw fa ni dama koy labatal sama doom walid ibni abdul malik ci misaal président de la république ànd ak doomam andi ko sa kër président moo ñëw de président moo ñëw ak i motaaram ak ñi ko jiital ba sa biir kër ànd ak doomam ni sama doom laa bëgg mu takk sa doom bu jigéen bu doon nu na moom kenn du ko wax ñaar yoon sama doom doomi président mooy jëkkër sama doom pale lay sëy sama doom ci nguur gi la bokk yooyu nit ñi dañ ko doon ndamoo fekk déedéet du loolu lañu war a xam xoolal ñii mbokk yi ak niñ dëddoo àddina ak ni ñu ragalee yàlla nga xam ne fii moom kaay ma may la rek ci war a topp mu ne ko man sama doom du ma ko may doomi buur allahu akbar sama doom du sëyeeg doomi buur mu ne ko ngani mu ne ko sama doom du sëyeeg doomi buur mu ne ko sa doom nag duñ ko may sama doom force ah force nar na ci am ñu jàpp ko yóbbu ko ca penc ma takk ko ba mu dëgër sotti ko ndox mu sedd jamonoy sedd ba mu tooy xëpp tiim ko dóor ko téeméeri yàlla pour waxal waaw buur dëfut xam na ni bu waxul waaw say bi du wér ndax lislaam lañ doon dund bu waxul waaw rek say bi du wér ñu jàpp ko dóor ko téeméeri yar tekk ko mu ne la ma la waxoon laa waxaat ba tey sama doom doomi buur du ko takk am na beneen riwaaye nee nañ dóor nañ ko lu mat ñeent fukki yar buur door ko door xam ne xel kii moom ay door taxut mu maye mu bërgël ko gis nga bi mu ko bërgëlee saa it commencé di jàngale ba mu yàgg waa ji di abi wadaa nee na man dama daan jàng si ci ndongo yi laa bokk nee na ma toog ay fan jàng si wuma nee na bi ma jàng siwul saïd ibni musayib daal di may nemmeeku ñu ne ko diw di gët ñaa ñëw ci xalqa bi mu ne xaaral ma xool ci lu mu nekk daal di bay dem ni ko waaw sa waay yow lu xew mu ne ko man de sama soxna moo faat fan yii paas mu ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah yow lu mel noonu bu amee doo ko yëgle sax ñu ñëw jaale si la ñaanal ko yàlla ak yi demee noonu mu ne ko ah man de xam nga rek comme xam naa la yow moom diggante jàkka jàkk sa kër rek te amoon naa kersa bañ laa sonal moo tax ma bàyyi la waxuma la mu ne ko kañ la mu ne ko fan yee paase mu ne ko yaa ngi ak soxna mu ne ko déedéet fi ne de di yoruma soxna benn soxna laa yoroon mu faat mu ne waaw sa xel nekkul ci takkaat mu ne ko ah ah kay sama xel a ngi ci waaye man ñaar dërëm man lu ma damaa woor waaye lu ma ndogoo sax awuma ko di dina nii kan mooy xool ci kan moo may xool man di ma may ak ni ma màggatee nii mu ne ko xanaa kii wax ak yow moo lay xool may la ko allahu akbar sëriñ sa sëriñ sa doomu sëriñ sa doomu sëriñ gars yi moom takk sa doomu sëriñ moom léegi ñu wuñ ko moom takk sa doomu sëriñ nag ah da ngay xal ko gars yi duñ def loolu de loolu de loolu sëriñ bi nim si yàlla doo takk doomam fekk déedéet dañ doon maye sa doomu sëriñ ahan kay sa doomu sëriñ sëriñ bi day takk sa doom nga takk doomam loolu mën naa nekk sax waaw waaw yonente bi saa sallam takkoon na doomu ndongoom doomu ay ndongoom yu bari sax abubakar cala omar cala ah ak yeneen ak yeneen ak yeneen mu ni ko man maa lay may talal la say loxo ca saasa laa wax ca saasa mu ne inna alhamdulillah nahmadu wa nastainuhu sama doom ji jigéen ji ci kër gi may naa la ko ci farata yàlla sunna muhammad fiñ taxaw amul dindi guro amul jonkal amul dara fiñ taxaw mun fas fas fa saydu loolu nag saa su ma ko nettalee dinaa ci teg ni góor bu yilif kër ma ko man nag ah borom kër borom kër dëgg góor bu yilif këram moo ko man gis nga ku fi jóge woon di ko jéem a essayé te yilifoo sa kër sunna si jur sonn nga cay jëlee sunna si day wëlbati ku soppali ku nekk sonn ah ndax xam naa bu bàjjen bi yegsee ba yumbaañ yegsi ba yaayu xale bi yegsi bañ woon di yaayam ba mu yegsi la nga façon dinañ ko fecc waaye nag am na ñu am sañ-sañ ba tey di def lu mel noonu man xam naa koo xam ni ba tey mi ngi def lu mel nii li ma ci jaaxal nag moom dong laa xamagul nag xam naa li ma ci xam bariwul waaye moom rek laa xamagul nag kuy def lu mel nii defal na ko ku ma xam koo xam ne moo ma ko nettali allahu akbar nga xam ne da ngay ñëw rek xoolal kii bëgg nga ko mu ne waaw mu ne kaama may la ñaata sama waa ji nee naa ko ñaata nga joxe mu ne ma dañuy dugg ci biir jumaa ji di julli ci jumaa déglu leen ko seen baax ngeen xam ni man am na yoo xam ne boo yaakaar ni amatul mi ngi am ba tey muy dañuy dugg ci biir jàkka ji waa ji ne ko loo fi yore mu ne ko man de mille francs dong laa fi yore mu ne ko ënci mu jël mille francs bi ñu jullee jumaa ba noppi may ko xale mu ne mille francs laa joxe mille francs moom laa joxe di sànq xalaas jeex na subhanallah ci loo xam ne amul benn fere amul waaj amul dara te dégg naa it noonu lay def nag yàlla yàlla dëgëral ko fay ko yiw te bari na ay moromam saïd ibn al musayib daal di koy may ndaw si daal ni wa sallallahu wa sallam ala muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain ñaata nga yore mu ne ko fi leen kay ñaar dërëm dong laa yor te man lii wala waroon dogo mu ne ko andi mooy can ndax say faw mu am can mu jël ñaar dërëm bi mu takkee ba noppi mu ni ma daal di dem sama kër nee na maa ngi ànd ak kontante goo xam ne la sax xaw mu kontaan ba fàtte ni sax daa wooroon mu ni jour boobu mbur mu waw laa am ak tuuti diw diw diw diw diw huile de livre pour war ko ndogoo nee na man daal awma lu dul rek ndogu jot ma teg ndogu li dégg ku fëgg sama bunt ma ni kookan la mu ni man la Saïd mu ni bi mu nee man la Saïd sama xel bi ku ma xam ku tudd Saïd ci àddina bi xalaat naa ko ba mu des ci sama sëriñ bi ma fàtte ndax lu tax moom daawut génn lu bari di dem fenn kon xam nga ni ku mel noonu saa bu bëggee sa buntu kër da ngay jaaxle ndax ku dul dem fenn boo gisee mu dem rek am na lu xew nee na bi mu ne man la Saïd wër naa àddina beeg saa xel mi Saïd diw Saïd diw man ñaata Saïd laa xam mu ne fàtte naa Saïd na Saïd mu ne man la Saïd ibn al-Musayyib ma ne ko Saïd jàmm lu xew mu ne ko li xew mooy li xewoon sànq ki ma la mayoon laa indi mu sëy si allahu akbar kooku wutaluñ ko oto bàjjen yóbbu ki ma la mayoon laa indi mu sëy si moo tax mbokk yi xawaam yeeg yàlla jox góor yi lif sa kër am na solo paax nekk xale bu jigéen baa ngi topp ci ginnaaw bàyyi ci nee na ma ñëw ba dugg si ma tijji bunt bi mu ba ma xale bi ci biir néeg bi ni ko sa jëkkëral ngoo man maa ngi dem ndaw si bari la ko kersa ba ba dafa fakkastalu daanu bi fakkastaloo daanu waa ji nee na maa ngi rusa rusa rus ndax néeg bi amut tapi amut mat laa néegu jax la mu ni dama mujj sëppay làmp bi ndax bañ ma gis sama ndogu la xam nga amul amul dara ndeke jigéen bi bàyyi bi yar na ko yar boo xam ni subhanallah allahu akbar ndaw sa jigéen la ju njool sa kaw rafet ba waa dëkk bi yëpp di ko coow ndax taar bari xam-xam ba mel ni baayam mokkal alquran ndaw saa ngi muuru rek toog benn place nee na man damaa rus ba xawma lu may def ma ne ah comme xawma lu may def xaaral ma génn yëgal ko sama dëkkandoo yi nee na bi ma génnee di woo dëkkandoo yi ci la ko sama yaay yëg yegg si bi sama yaay yegg see mu ne déedéet aal ma seen bi ma waajal la ma defar la nee na sama yaay moo jël seen bi yóbbu defar ko waajal ko ci gépp waajal ko dagan daal di koy indiwaat nee na bi mu ko indee ndaw si ñëw mu ni lu dekkoon sama naqaru àddina keroog laa ko fàtte allahu akbar sa doomi sëriñ sa doomi sëriñ laa wax de nee na ma nekk ak moom ay fan déwuma ci xalqa ba jàngi fan doon jàngee nee na benn bis ma daal di génn dem jàngi xanaa loolu day tombeeg la waajo doon wax naan daa takk benn jigéen jigéen ja bari xam-xam lool sëriñ bi gëj koo gis mu ne ko waa lu tee nga jàng si mu ne damaa gis ku la dàq jàngale maqaama maqaamatul xarit la doon jàng mooy damaa gis ku la dàq jàngale maqaama lu mel noonu da doon am da ngay gis koo xam ni day bind téeréem doomam bu jigéen di ko ko maasal maa di ko ko sarxaal loolu da doon faral di am nee na bi loolu amee ñu daal di ñëw ci xalqa bi nee na Saïd daal di wax ak gars yi ba xalqa bi jeex ba mu des maag moom kese mu ne ah waaw saa waa ji yow gis naa laa gis dina kamu ah ana seet ba mu ne ko seet ba daala ngay sax ci li lu soppe bëgg di bañ li soppe bañ allahu akbar seet baa ngay bëgg li soppeem bëgg di bañ la soppeem di mbokk yi kii kay wax dëgg yàlla daanaka ñàkkam gi neex na yow koo xam ne ki nga am mokkal na téere yàlla bi borom xam-xam la ni baayam am na kersa rafet na ragal na yàlla kooku kay sëñ bi kooku la ñëpp yi wër loolu jàpp naan ko gaa yi gisoon léegi tey dinañ sëmbaxaloo ca kër googu kër saa yi di ko yóbbu waaye nag bari waa na ci ñun ñoo xam ne bu ñu demoon danañ leen dàq kenn du leen ko may nee na bi loolu amee saa yi daal ne ah bu fekkee jàpp na yoon rek maay bàyyam jëlal yar rek nga xudd ndigg bi mu ne ko déet xudd ndigg kay du si am nag moom nee na mu daal di dem daal di jël benn mbuus boo xam ni ñaar fukki dinaar la ci def loo xam ne daanaka mat na trois cent mille mu nit boo demee joxal ba ko nee na ngeen séetu saa bàyyi ne leen seen bàyyi ne na ngeen séetu maanaam may na ko doom ji ba noppi joxaat ko valeur trois cent nangam mille di ko nga séetu maanaam mooy nga noos rek xisa bu mel nii mbokk yi damay faral di wax ni am njàng mu rëy moo ci nekk njàng mi mooy gis nga ñu njëkk ña ay sëriñ yu mat sëriñ lañu woon loola sababoon la ci seeni doom taamu nañ ci ab ndongam xam-xam bu amul dara kan ci ñun wala léegi rek kuy dem Italie kuy dem Espagne kuy kuy tukki ab commerçant kuy jaay or ak yéen si yi ngeen xam ah gis nga de ak kuy jaay or ak kuy liggéeyee sàndaga genre yu mel noonu ak ko am oto moo taxit loo ci gis léegi góor ñi bu ñuy laba ci léegi dañuy àbb oto jàmbur ñëw di doose nekk nekk lu sëfoor fekk sax amoo dara gis nga de da ngay gis koo xam ne day ñëw naa man Amérique laa nekkoon nangam nangam nangam fekk aéroport sax mosu faa dem parce que nit ñi loolu lañ xam léegi loolu lañ leen di naxee nit ku nekk ca lam xam nañ koy naxee waaye taamu ndongo boo xam ni ndeysaan amul dara te kii may wax nii ki ma doon nettali sànq ab ndongo la buy jàng comme man amul dara day jàng ba tey njàngam paree bi amul dara waaye ki ko def xam na lim def kon yu mel noonu mbokk yi jàpp naa ne sunna yu ñu war a dekkal la nga xam ne nit ki day fexe ba taamu dekkal sunna saayid ibn musayyib nga xam ne di nga may sa doom ab jaamukatu yàlla may sa doom koo xam ne taamu woo ca alal waaye nag bis boo jàppee ca loxo ba yóbbu ko nag moom jël nga coupe bi moom booba moom jël nga coupe bi moom dina saayid ibn musayyib li ko waral moom mooy nit mën naa jéem sax bu njëkk waaye bu mujj moom xaw a jafe loolu nag góor bu yilif këram dëgg ak ko am ndimbalam suñu borom moo ko mën bu njëkk mag ñi suñu mag ñi dañ daan def loolu suñu mag ñi man ñu ngi may nettali ci ay mag yoo xam ne ah da ngay dañ lay fekk fa ngay soqee fa ngay soqee wala fa ngay bojjee wala ca dàgg ja ñu ne la kaay wuyu nga ñëw ñu ne sa baay nee da lay maye tey tey ci ngoon lañ lay maye nga dem waaji léegi léegi léegi ginnaaw tàkkusaan pour ginnaaw timis nga dem sëyi lii man xam naa ko man donte fekkee wu ma ko it xam naa ñu ko def ñu man ñu ñu nettali ay mag nettali ah nga gis koo xamante ni sa waay baayam da koo maye ba pare waral ko ci aw fas ni ko demal nga dem sëy amul jigéen lañ ay am na topp mbaa bàjjet déedéet amul ci yooyu nag mbokk yi suna yu dëgër la yoo xam ne jàpp naa ne ba tey war naa mën a am mihnatuhu rahimahullah said nu sayib ak natt bi ko sun borom tegoon natt bi bokk na ci li ma la waxoon sànq dóor yi ñu ko doon dóor waaye bokk na ci abdullah ibn jaafar nee na abdullah ibn zubayr bi mu nekkee amir ah dafa defoon gouverneur Jaabir ibn al Aswad ibn Awf az-Zuhri ca Madina nee na Jaabir daal di woo gaa yi ni leen kaay leen ngeen jaayante ak ibn Zubayr saynu sayid ni mukk xanaa nit ñëpp nangu ma doog a nangu waaye bu nit ñi nanguwul du ma nangu booba nag coow moo amoon ndax doomi Abdul Malik yi ñoom ñi ngi xëccoo nguur gi Abdullah ibn Zubayr di ko xëccoo te xëccoo moom warta am kon war nañoo seet kan moo ko yeyoo moo tax muy damay xaar keroog tee nañ ko dóor ko juróom-benn fukki yàlla ban ko dóoree dóor yu metti ya ah bi abdullah ibne zubayr yégee mbir ma dafa woo jaabir yettu ko ni ko war a war a def lu mel noonu kay kilifa la kilifa kenn du ko dóor abdullah ibne zubayr xam ngeen jaamu yàlla bu baax la woon waaye mbir ma ba muy am ameewul ci ab ndigalam doonte ci doon kilif téefam la amee abdul aziz ibni marwan mooy bàyyi mooy bàyyi omar ibne abdul aziz Omar ibn Abdul Aziz Aziz moom ngay dégg ñu koy tudd Abdul Aziz ibn Marwan moom mooy mooy bàyyi Abdul Aziz ibn Marwan bi mu faatoo Abdul Malik dafa dal di jël xilaafa gi nag fas yéene koo tegal ci ñaari doomam moom bu faatoo Walid ibn Abdul Malik jël su faatoo Souleymane ibn Abdul Malik jël ba pare nag mu ne yéen seede leen ko dëkk bi seede leen ko saa yi ne ko dama seede loolu loolu mooy la yow faatoo ko ñii ñëwaguñ ñu naan dañuy seede lu ñëwagul du ma ko def de ñu wax wax wax mu ne ko du ma ko def ñu jàpp ko tëral ko ci digg pénc mi dóor ko ñeent fukki yar xam nga lu tax ñu doon sonn ci moom gis nga borom xam-xam ku garaaw la ci ci société mooy su fàqee rek day fàqaale ñu bari day yóbbaale ñu bari moo tax Abdullah ibn Omar ba ñee ko kaay jaayante ci jamonoom mu ne jaayante naa de maag saak njaboot waaye ci sartab ala kitaabillahi wa sunnati rasulillah su mënta nekk fomm na gis nga de kon borom xam-xam da di koo xam ne boo fa kastaloo rek yóbbaale ñu bari nee na biñ ko dóoree ba mu sonn mu ne aal leen ma tubay ju mel ni forme pantalon ma solo ñu aal ko mu solo nee na ñuy wër ak moom dëkk bi di war xool leen ko mi ngi nii daal ñàkk a dégg ndigal kilifa moo tax ñu dóor ko nee na ba ma paree ñu tourné ak man mañ leen fu ngeen jëmal man ñu ne xanaa kaso mu ne kon kay man jëruloon may sol pantalon bi ma sol damaa foogoo ne da ngeen may pantal man fi ne def naa samay dénkaane ba jàpp damay dee ba nopp moo tax ma sol pantalon bi ngir bañ ngeen xaawi sama sutura yi ne bu doon loolu koy jërul ma koy sax tëj leen ma kaso loolu koy du dara ci man mu daal di dem kaso borom xam-xam bu doy noonu xoolal dóor yu metti yooyu xanaa yorul njaboot ci kër gi xanaa yorul ab liggéey xanaa amul i mbokk ci dëkk bi loolu da lay wan ni mbokk yi ab borom xam-xam faw mu am ay natt natt yi day mel nii maa mu mel na ne loolu nag maa ngi ciy insisté ci ñun ndaw ñi ñun ndaw ñi tey sunu borom xam-xam wala kenn ci suñu borom xam-xam yi bu coow amoon fi ne ñu tëj ko rek léegi tey ñu bëgg a jug manifesté wu lakk dëkk bi déedéet loolu du ko faj de Ahmad ibn Hanbal tëj nañ ko kaso Saïd ibn Sayyib tëj nañ ko kaso Muhammad ibn Sirin tëj nañ ko kaso Ibn Taymiya tëj nañ ko kaso Ibn al-Qayyim tëj nañ ko kaso nga ñëw ba ci suuf ba ci albani tëj nañ ko kaso nga ñëwaat ba ci suuf fii may wax ak yow nii am nay boromi xam-xam yu nu xam ñu ngi ci kaso bi yu mag ci àddina bi ñu ngi ci kaso bi am na ci koo xam daanaka xaw tuuti kon du jug ci kaso muy xaalid rachid xafidahullah daanaka du jug ci kaso moom kon yu mel noonu yu war di man di am la ñu xam ne yàlla dafay natt borom xam-xam yi waaye nag innama yuwaffa sabirun ajran bi gayri xisaab buñ mu nee bu leen di fay day tibb rek di leen jox benn bis sax benn waaye dafa ñëw ne ko waaye bani umaya muy nguur gi téngale ni ñaanal yàlla alag leen mu ni jëru ko damay wax yàlla ni ko képp ku dimbale diina dimbale ko ku dimbalewul diina alag ko wasalaam ñaan googu doy na ku jàmmal xeetu muhammad yàlla yàlla jàmmal la ku jàmmalul xeetu muhammad yàlla boo am jàmm mu ne loolu doy na ndaysaan yunus abi yunus alqawi nee na benn bis damaa ñëw ci jàkk ji fekk lu daw yaram lu xew muy damaa fekk saay mu sayëb moom kese mu toog nit ñi di ko dal ma laaj lu xew ñu ne amir moo joxe ndigal ni bu ma gisee kenn ku toog ak moom daa nga jàng ci moom rek ma def loolu bon allahu akbar ñu di ko daw comme nit ñi dawee sa waay ku def musiba niki noonu xataara nee na ibnul musayib léeg-léeg da daan toog ci jàkk ji wéet benn waay ñëw nar a toog mu ne ko déet sa waay bul juróo jàng comme kilifa la demal amul problème man mënu woon sama jàngal nee nañu bul jàngal est ce que xam nga ne borom xam-xam yu bare bare bare buur leen tee seen xam-xam siiw gis nga Bukhari yi mii ngay dégg nga xam ne saxiirul Bukhari rek doy na ci lim liggéeyal xeet bi keroog ba nga xamante ni am na problème ak buur buur da koo dàq génne ko dëkk ba yóbbu ko ca àll ba muy Bukhara comme dëkk fala xam-xamam ba sànkoo nga xam ngeen ne xam-xam en général xam ngeen du ca àll ba ca gott ba fa ñuy sàmmee fa lay tasaaroo déedéet seetlu ko yonent bu yàlla mos a yónni li tëb ci ville la ko yónni ci ville du ko yónni ci kaw ga déedéet xanaa kay ndaw yee dem di jot li ji waaye ab yonent ci biir ville bi fa la mbir yëpp gën a amee aajo ñaareel borom xam-xam yi kadaalik borom xam-xam bu mag bu ñuy coow bu nekkoon ca gott ba néew na loo koy dégg muy Malik muy Abu Hanifa muy Shafi'i muy Ahmad ibn Hanbal muy Awza'i Sufyan al-Thawri Sufyan ibn Uyayna Qatada Mujahid koo ci dégg nag daanaka ci ville bi Basra Kufa Sham Makka Madina ila axirihi dëkk yooyu lañ doon faral li nga xam ne mooy nekk centre ville bi kon Saïd ibn al-Musayyib borom xam-xam bu mag la woon bokk na ci ay firndeem ñi ma tudd sànq jàng na ci ñoom Ousmane ibn Affan Ali ibn Abi Talib Amar ibn al-Khattab Sa'd ibn Abi Waqqas ak Hakim ibn Huzam ibn Abbas ibn Omar Amr ibn al-As ak baayam Musayyib jàng na ci moom Ma'mar ibn Abdullah ibn Natala jàng na ci moom Abi Dar jàng na ci moom maanaam Saïd jàng na ci Abi Dar jàng na tamit ci Abi Darda jàng na ci Ousmane ibn Abi al-As jàng na ci Abi Salabat al-Khusani jàng na ci Qata Abi Qatada ak Abi Musa al-Ash'ari ak Abi Sa'id ak abi hurayra ak doom ja nga xam ne soro na ci moom lu bari ak aisha ak asma ak xawlata binti hakim ak fatima binti qays ak ummu sulaym ak ummu surayk ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ci góor ña ak jigéen ñi saxaaba ya la moom jàng na ci ñoom waxoon naa leen bari ay sëriñ firnde la bulu wane ne géej gu fees dell gi amma ñim jàngal nag doomam di ñuy wax muhammad jàng na ci moom salim ibni abdullah ibni omar jàng na ci moom ibni shihab az-zuhri jàng na ci moom qatada jàng na ci moom sharik ibni abi numayr jàng na ci moom abu zanad jàng na ci moom ak saad ibni ibrahim jàng na ci moom amr ibni murra jàng na ci moom yahya ibni sa'id al ansari jàng na ci moom ak daawud ibni abi hind jàng na ci moom tariq ibni abdurahman jàng na ci moom abdulhamid ibni jubayr ibni shuba jàng na ci moom abdulxaaliq ibni salama jàng na ci moom Abdul Majid ibn Salim jàng na ci moom ak Amr ibn Maslama jàng na ci moom ibn Imara ibn Ukayma ak Abu Jaafar al-Baqir kooku ponkal ponkalu borom xam-xam la Abu Jaafar al-Baqir jàng na ci moom ibn al-Munkadir mooy Muhammad ibn al-Munkadir kadalika alim mooy alim ahli al-Madina fi zamani jàng na ci moom Hashim ibn Hisham wala Hashim ibn Hashim ibn Utba jàng na ci moom Yunus ibn Yusuf jàng na ci moom ak ñeneen ñu bari ñoo xam ne ay fóore la ñu xam jàng na ci Sa'id ibn al-Musayyib Saïd ibn al-Musayyib mbokk yi ak yenn ci kaddu yu daan génn ci moom yu mën a jariñ ah kaddu yoo xam ne dafay jariñ xam ne doo fi toog di léebal nit ñi rek ah nekk kilifa diine saway nit ñi yaakaar la nga toog di léeb lippoon li fi amoon ndaanaan nga xam ne daje boo am loolu ngay def ni li gën a soof mooy kilifa diine koo xam ni sab daje ñëpp koy bëgg ndaxay xaaxataay ak reetaan reetaan rek moom daal da ngay ree moom daal rek boo bëggee reetaan demal ci diw gis nga kilifa diine goo xamante ni daanaka fa lépp gën a neexee moo ko gën a man ah ay xuraafaat ak xusaa balaat ak sagari seen kese lay nettali yooya kooku du kilifa gu mat kilifa du sëriñ ab sëriñ bu dajeeg ay taalibi daf leen di wax fulla wax leen loo xam ne daf leen di jariñ wax leen loo xam ni ba ay at dañ koy fàttaliku di ko jariñoo ci moom
ah waaye yo- waaye waaye waaye kilifa goo xam ne bu ñu dajee ah ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant gis nañ li ngeen fi indi ci ceeb waa courant ñu ngi leen di gërëm gis nañ yëf yi dara manqué wut gis nañ ndox mi gis nañ tali bi gis nañ nangam nangam taalal leen ma ñaanal leen kooku kay poosam la doon moom kay gis na lim doon seet kay kon kay faaw mu ñaanal parce que lim doon wut lépp gis na ko courant bi la bëggoon ñëw na ndox mi la bëggoon ñëw na poos bi duun na ceeb bi doy na mu ñaanal la nga dem bu ko defee nag nga perte fii perte fële ki lay jëriñ mooy ku lay wax yàlla nee na yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam سعيد بن المسيب لنا ما أكرمت العباد أنفسها بمثل طاعة الله ولا أهانت أنفسها بمثل معصية الله وكفى بالمؤمن نصرة من الله أن يرى عدوه يعمل بمعصية الله سعيد نينا جامي يالله يترلون سين بكان ترانغ جمل نتوكلو بكان بيالله toroxaloo sa bakkan toroxtaange mel di ko moyloo yàlla ak wax dëgg sa bakkan bi teraloo ko teraa nga juree di ko topploo yàlla muy topp yàlla waaye bis boo koy moyloo yàlla yëgal ni yaa ngi koy toroxal nee na doy na ab julit ndimbalam yàlla mu seen ab noonam di mooy yàlla loolu rek doy na ndimbal sab noon waxuma la nga seen ko mu nekk ci musiba de boo ko séenee muy mooy yàlla rek mu ni sa xel na daal te nga xam ne léegi musiba wàcc sa kawam ibni harmala nee na sayd sayid nee na bu ma déggati ngeen naan ay musay ay musay ji as as njàkk yéen seen koñ am na jàkk nga naan i am na si njàkk sa ndaw rek mu ne loolu musiba la ëpp naa wax yow loo yore da nga ne lii de as kaamil rek la mu ne déet ëpp naa wax nee na ma kaana lillahi fa huwa azimun xasanun jamil as mu ne kenn du ko askane la yàlla mu màgg la nee na lépp lu askanoo ci yàlla lu tedd la lu rafet la lu màgg la as njàkk askaami nee na bu ëpp na di wax bu ko kenn di waxati ali ibni zayd nee na jëlani said ibni sayib nee na ma aysa shaytaanu min shayin illa ataahu min qibali nisa allahu akbar nee na shaytaane bu bëreeg yow bëre bëre bëre sottiwul mu dem ba découragé rek muy day jël beneen technique dernière technique mooy jaare ko ci jigéen said ibni musayib nee na seytaane saa bu la jéemalee jéem mënul ci yow dara te bëgg naa man ci yow dara mu ni ci jigéen la koy jaarale loolu moom defe naa ci ay duruus ak ci xutab leeral naa ci lu bare bare bare borom xam-xam yi leeral nañ ci lu ñu jiitu lu bare bare bare mbokk yi yonent bi saa sallam su toogee ba yàgg mu ni bàyyiwuma sama gannaaw fitna ju gën a rëy ci góori xeet yi fitna yi jigéen lam tiit lu rëy lu garaw gis nga jigéen fitna ji yàlla njëkk na toobanu Israël mi ngi ko jaare ci jigéen fitna yi jigéen daaneel na mbër mu nekk mbokk yi gis nga bis boo yaakaaree ne mucc nga ci mbaa sax ngay dal dal lu xel naa non amul problème man yor naa soxna wala yor naa ay soxna wala boog man même ma yorul soxna wóolu naa sama bopp Saïd ibn al Musayyib dem na ba am quatre vingt quatre ans juróom ñett fukki at ak ñeent kooku nag xam nga màgget bët bi pat kooku dafa naa jigéen soxlaatu ko muy téye bi ci des naan jigéen laa ciy fitnaam jigéen laa ciy fitnaam maa shay'un axwafa indi min annisa fi ne tiitatuma lenn lu raw li may tiitee fitnay jigéen aka mën a fitnaal aka mën a fitnaal nit defe naa yéen a ngi fàttali ca xutba jooju ñu defoon ci aabidu bani israil kañ dénkoon ndaw sa bafam jaar fa seytaane yàqal ak yeneen ak yeneen boo gisee yonent bi naan bul jox loxo jigéenu jàmbur boo gisee mu naan bu mu wéet bu mu tukki moom kese bu leen wéet yéen ñaar ak yu demee noonu yooyu yëpp boo gisee ñu ko jël dañuy fatt bunt yi nga xam ne seytaane ca la mën a jaar wallahi bari na ñu daanu te fekk lii leen daane la gis nga loo ci dégg nag xamal ni li nga dégg lu ko bari na ñu daanu ñu daanu laa daanu ba ni nërmel daanu ci suuf këlbét wadd te fekk fitne jigéen a leen daal bul toll fenn nag ba wóolu ci sa bopp foo mën a toll yëgal ni ku la gën a ragal yàlla gën laa jekku njub tolloon na fa ba ko sun borom seetaanee jigéen fitnaal moo tax gis nga boo góorgóorlu gis ngeen Muhammad ibn Yasaar ba mu toogee ba mu yàgg moom yàlla dimbali na ko ndaw sa ñëw ci moom ni ko fi mu ne nii dama aajowoo góor te aw ma jëkkër te du ma génn fii lu dul naa la song ndeysaan mu siggi xool ndaw si rek sëgg di jooy di sërxët magum jëm mu doy ni moom di sërxët di jooy sërxët yi yàgg lool xam naa loolu dugg xol ndaw si ba ndaw siy jooy ndaw siy jooy ba rakkam yegg si Ataa ibn Yasaar bi ñu yegsee moom it xamut lu ñuy jooy te rus naa laaj moom it muy jooy ndaw say jékki-jékki yàgg ne ñox ket jub dem waxut dara kooku yàllaa ko dimbali kooku yàlla moo ko dimbali ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne yàlla dimbali na leen gis ngeen yusufa alayhi salaam ca kasam jabari buur indi la ci paleem taaru ba jekk sàkku la tëj buntu ya ngay doxandeem amoo mañam rus tey gone amoo jabar kon facteur yi daje yi door a tax yusuf njaalo waaye nag maad allah innahu rabbi ahsana maswaay auzu billahi min alsheytan rajim musulaa ci yàlla ci lii nga may woo même bu dul sama digganteeg yàlla xanaa sa jëkkër ak lim ma tere rek war naa koo rusa wor gis nga de kaso mu ne rabbi yow sama borom ak sijnu tabbi kaso ahabu ilayya moo ma gënal mayatuuna ne ilayhi dem kaso moo ma gënal njaalo laa shakka ne ndaw sa kat bu yàlla dimbalewul woon yusuf yusuf musiba mën na ko caa dàq ndaw sa di dàq yusuf yusuf di daw di génn ndaw sa di ko xëcc na nikk ci mbub mi mbub mi ni tareet ci gannaaw yusuf daal di ubbi buntu yi génn tase jëkkëri ndaw sa ndaw si ni ko waaw kay nag kenn nettaliwu la nag yaa ci yàlla sa bët gis nga ko nag saa boo génnee nii la may def daf may sàpp mi ngi nii waaye jëkkër ji di ku dal gis nga jigéen ah man naa wax bañ defal koy diplôme fi mu taxaw alquran na ko wax de awaman yunassau fi lxilyati wa huwa fi lxisaami gayru mubin sunu borom ko wax ndax nee na inna kayda kunna adim inna kayda kunna adim aaya jooju laa soxla inna kayda kunna adim ndaw si daal ni ko mi ngi nii saa boo génne daf may sàpp yusuf ni teg boo amee dëgg doo bari wax seetlu leen loolu boo amee dëgg doo bari wax ndaw saa ngi taral waaw waaw xam naa sax boo boo moytuwul doo ko def dara waaye gis nga bu yow nga tëj ko tas yow looy wax jëkkër ji lu muy def yow kay wax nga li ngay wax kay déglu rek waaye mi ngi gaaw di trouver gaaw ay solution nañ ko taf tafee maanaam àtte bi nañ ko gaaw taf tafee balaa ñuy rek la lu war mu daal di siggi xool Yuusuf Yuusuf ne ko déedéet li mu wax amul de moom moo waroon a sàkk kenn ci dëkkandoo yeeg ñenn ñi ne ab liir la ñenn ñi ne ci mag la ci waa ndaw sa la bokk alakul xaal mu daal di àtte àtte ba mooy waaw comme nee nañ mbubu xotteeku na ci mu ne bu ngeen demee bu mbubu ma xotteekoo fii xam ngeen ni Youssouf moo doon jéem a song ndaw sa ndaw say bañ mu xotti ko su fekkee fii la Youssouf da doon ndaw ndaw sa daal di koy xëcc mu xotteeku bañ xoolee gis ni fii la xotteekoo ah xanaa luy leer leer la waaye ndekk jëkkër ji moom sa waay li muy teey teey amut ci fulla dara dara dara dara ah yow xam nga ni kay kon ndaw see tooñ léegi doo war def li ñu war ci ndaw si mu ne ah yusuf arada an hada wastaghfir li zanbi yusuf bàyyi noonu mu jàll eh yow jéggal yusuf yaa ko tooñ affaire si jeex xam nga lan moo waral loolu est ce que xam ngeen lu ko waral xam naa xamu leen ko de nopp sa jabar ba mu ëpp nopp sa jabar ba mu ëpp moo waral loolu maanaam nit gis nga boo yeggee fenn fi ci sa soxna boo ko fekkoon ak góoru jàmbur sax bu subaa nga àndaat ak moom saadu moom nee na bu ma doxoon ba fekk góoru jàmbur sama kër jaasi lay jël gis nga jigéen buy togg supp ni muy fajaraate noonu laa koy fajaree saaba yi ni épp kii dafa dox xanaa yenent bi ni leen waaw moom daa fiir ma xanaa xamu leen ni maa ko gën a fiir te yàlla moom a gën a fiir dégg naa ko naa xamoo ci ginnaaw de xam naa bu doon moo waxuma la fajaraate waaye da koy seeyal benn yoon te loolu mooy fulla maanaam góor dafa war a am fiiraange góor dafa war a am fiiraange ci soxnaam góoru jàmbur du kafak jabari jàmbur ay tàpp santeeg ay dangaa leer ak ay sa tay baas beeg ay sa lieg lieg temps yi dangaa lieg yooyu dama ni góor gu ñàkk fayda rek lañ koy wax soxnaam mu toog di xool loolu da ngay futteeku nga xeex waaw wax yu mel noonu buñ la ko waxee sax la ngay futteeku nga xeex waaw yu demee noonu kon nit ñi nañ ci bàyyi xel l'islam dafa bëgg gis nga am na benn borom xam-xam dafa taalif benn téere tuddee ko alxiira fiir gis nga li ma gën a yéem mooy ci biir téere bi da caa nettali ba nettali picc yoo xam ne picc picc yoo xam ni ci picc yi gën a fiir ci mbindeef yàlla yi lañ bokk xam ngeen pitax te gis nga pitax boo dox dox loo ba laal soxnaam tey rek nga lakk bëkk te xoolal pitax pitax amul xel mbokk yi pitax amul xel amr ibni murra ah nee na damaa ñëw amr ibni maymoun nee na damaa ñëw tuub ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam gis benn waay bu njaalo ñu koy jam ay xeer ma ne waaw man lama damay gént wala lama gisoon laa gis yonente bi ni ko loo gis mu ni ko maa dem ba ci àll bi di bay ba mu yàgg ma seen genn golo nee na golo gi jug dem ba tombeek benn golo bu jigéen mu kobas ko ci nopp nee na golo gi jug mu ànd ak moom ñu dem ca gannaaw garab ya tëdd fa njaalo ñoom ñaari golo yi de nee na maa ngi gis ndax maa ngi ci biir tóokóor bi ci tool yi nee na bi njaaloo ba noppi nees tuuti rek ma dégg genn golo gu yuuxu yuuxu gu fort genre alerte woote mu ni ma seen golo yi yegsi bi ñu yegsee ñu jàpp waa ji tër ko dañ koo jam ay xeer ba mu dee mu ngi yow li nga doon def la golo yi doon def tey allahu akbar moo tax benn borom xam-xam mu ni jamono bi nit ñi sàgganee àtte yàlla boobu di raj mu de fekk na golo yi ñoom ñoo ngi koy jëfe saïd ibnil musayyib kon jaamkatu yàlla moom bu mag waaye lam doon tiit mooy fitnay jigéen abdurahman ibne harmala nee dañoo laaj saïd ibne sayib ni ko benn waaye dañ koo fekk mu naan sàngara est ce que du ma ko jël ma boole ji ko mu ni ko déedéet loolu du jikko ji rafet mu ni lëng ko nga bàyyi ba sàngara si dañ nga waar ko te nga suturaal ko su ko defee ëllëg du ko defaat te loolu mooy jikko ji rafet saïd ibne al musayib nee na àddina lépp a doyadi waaye la ca gën a doyadi mooy nga jël ko ci lu dul àqam waaye gën naa doyadi tamit nag nga daal di koy dugal foo xam ne waru faa dugg saïd ibne sayib akuk faatoom borom xam-xam yi dañuy wax ni ci mujjantal guddam ci juróom-ñetti fukki at ak lu topp feebar na feebar bu metti feebar boo xam ndeysaan dem na ba mënta dem jàkka ja am na lu ko métti allahu akbar mënatul a dem jàkka ja borom ñeen fukki at wala juróom fukki at yi daawul tànde jàkka ba këram boo ko fekkee buy julli day tëdd day tëdd jaaxaan nee na benn bis daa tëdd di jaaxaan di julli kabaar rek xëm bi mu kabaaree mu xëm fekk benn waay bu ñuy wax naafiya ibn jubayr ma nga fa naafiya mu ne kon wëlbatil leen ko mu féete penk maanaam tëraay bi na féete penk mooy li ñuy faral def naan néew bi jarag bi ki feebar nañ ko féete la penk loolu du sunna def déedéet loolu nekkut loo xam yonent bi da ko ni nan na féete xibla fekk muy faatu doo ko faatu doon déedéet bi mu yeewoo ci ximalik gi mu ne waaw kan ma wëlbati sama lal bi xanaa naafiya ndax toogoon na ko naafee ni ko waaw waaw mu ne ko wëlbati ko nga def ko mel nam meloon dama ne su ma jubluwuloon xibla ba heure bii xam nga ne jublu ma xibla du ma jariñ dara jublu leen fa ma nekkoon xibla jublu woon naa ko balaa maa feebar naa gis na yaxya ibne saïd nee na bi mu faatoo bàyyi na tuuti ci alal waaye dana wax yow yàlla xam nga ni lii ma jot a bàyyi ci alal de bëgg dajaleel àddina taxut waaye ngir ñu fayal ma ci samay bor wala jafe-jafe yi may am ma man ko ci ndax léeg-léeg mu ñu tëj ma kaso te borom kër laa Hakim Abdul Hakim ibn Abdullah ibn Abi Farwa nee na Saïd ibn Sayyib faatu la ci Madina ah atum juróom-ñeent fukk ak ñeent ci xilaaf ak Walid ibn Abdul Malik ah fekk booba am na juróom-ñaar fukki at ak lu topp am ñu ne juróom-ñett fukki at ak lu topp nee na at moomu nag at la mu métti ci Madina li ko waral mooy li faatu ci ay boromi xam-xam daa bari te loolu nag ci mandargam jeexul jamono la bokkoon mandargam mandargam jeexu jamono mooy borom xam-xam dañuy faatu faatu ku métti waaw dañuy faatu faatu ku jege yow dama teewloo tudd woon waxtaan woo xam ne ci bunt bii lañ ko laa ko defoon ci dundu suma juumut xama Seyxul Albani la xama kan ci ñoom waaye te jeexintal ba joxe naa ci ay exemple yu bari ci jamonoy salaf ba ci jamonoy Ibni Baas ak Albani ak Usaymin ñoom gis ngeen ñoom ni ñu tegalante Fawzaan ñoom ba ñoom ñëpp daanaka seen dund Jabrin Ben Baas Usaymin Alba daanaka dañoo tegalante xaw tuuti kon dañoo tegalante boo ñëwee fii sax nga mën cee jël misaal mu mel noonu at mooma dañuy wax ni mooy atum borom xam-xam yi ndax borom xam-xam yi nekkoon Madina ak ñeneen am nañu ca faatu ñu bari Abu Muhammad muy Urwat ibn Zubayr ca la faatu Abu Bakr ibn Abdurrahman ibn al-Harith ibn Hisham ca la faatu ibn al-Mughira al-Makhzumi Zaynul Abidin di sëtëb Ali ibn Abi Talib di sëtëb Hasan Husayn ibn Ali ah ca la faatu ak ñeneen ñu mel ni Abu Salamat ibn Abdurrahman ibn Awf az-Zuhri ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ay borom xam-xam yu mag lañ ci at moom lañ faatu kon at moomu dëgg la at mu metti la woon ci atu borom xam-xam yi kon loolu moo tënk dundab Saïd ibn Musayyib ma fàttaliwaat sama bopp ni sëriñ day dëgg dëgg mbokk yi nii lay mel ab borom xam-xam nii lay mel royteef muy royukaay ku ñuy roy nii lay mel ñii ñoo nekkoon imaam yi ñooy xudwa yi ñooy royukaay yi ñii ñooy ñi nga xam ne képp ku topp ci seen gannaaw laa sakka ne topp nga ci njub waaye képp koo xam ne roy nga leen roy nga ña nga xamante ni ñooñu ñoo tege woon ci alal hadil mustaqim noo ngi ñaan suñu borom bi asmaa'il husna wa sifatil ula أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم جامو يالا ييغا خام داف نانكو سي كور بي قيام الليل تراويح صدقات تطوعات جانغ القرآن waxtu wi nga xam ne dañ koy toog ci jàkka ji di déglu alquran yooyu yépp yàlla bu ko suñu borom neenal yàlla yàlla fulal nu ko ay montagne ci montagne yiw yi noo ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala ci turam yu sell yi te màgg yàlla yàlla boolañ ci ñi nga xam dañuy màng laylatul qadr te at mu jotit nag ñu màngu ko ba keroog muy faat yàlla yàlla def an yajaala saayana mashkuran wa dambana maghfuran yàlla yàlla def suñu jéegu mu nekk lu ñuy gërëm waaye suñuy bàkkaar mu nekk lu ñuy jéggale yàlla yàlla defal ñu tawfiq ci ajna ci alaxira yàlla na yàlla dimbali ñu ba rafetalal ñu suñu mujj ndax mbokk yi lépp lu nu am te mujjantal gi rafetal du baax de moo tax imam ahmad wax innama al amalu bil xawatim mbir yaa nga ca mujjantal ya allahuma ahsin aqibatana fi lumuri kulliha wa ajirna min xizyi dunya wa azab al axira wasturna fawqa al ardi wa taxta al ardi wa yowma al ardi alayk نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد